nuyu naa leen luy ay di jàmbat la ñu doon euh, xaar boobu ba nëgër nii ci ndorteel ay bés bi yemook ñaar fan ak ñett ci weer wi la dogoo bàyyeekoo ca CREI yi dëtt bi nga xamante ni moom mooy àtte mbooleem ñi ñu ne euh, maanaam dañu ami koppar ci anam yoo xamante ni dëppawul ak yoon am na gis-gis bu askan wi am nañu ko ci moom Coumba Dia ak Kuli Kassé am na lenn ci ay kàddu ñu si taataan ñoom la ñuy dem déglu ji balaa ñu dellu si waat nit boo koy topp ci li yoroon ci réew lañ ko war a topp mais d'après ñoom li ñu wax neneen toppee wuñ ko annonce bi toppee ko dara la nga xamante ne alal bu lewul la ñu ne papaam moo ko may ñu ne déedéet maye baaxul maye bokku ci alors que Macky Sall moom nee na Ablaye Wade may na ko donc kon boobu tam bokkul en plus nañ jël ña nga xamante ne bu mu yem si Karim rek ña daw làqu biir APR tamit nañ leen génnee. ma euh, doxee ci 2000 euh, kii euh, waa PDS ba léegi man aw ci man quoi ci man personnellement. élection moo xam ne bu kii Karim ñëwee dina jël kii bi loolu rek moo tax mu tëj ko ndax wanewul benn preuve boo xam ne nee na mag kii e, Karim xaalis bi moom la jël. Ah, loolu moom nañ bàyyi yoon def liggéeyam rek sama gis-gis boobu waaw. Sénégal nekkul réew moo xam ne ku falu rek commencé këf di yóbbu baa ngay def sa bopp parce que bu dee mujj finalement ñun xa ñun suñu juuti ñun sax mais suñuy sët dañuy mujj am problème parce que fond de caisse dootuñu ko am. mais bu dee ku falu rek ñu bàyyi la ak alu réew mi nga def ci la neex su sa morom faloo tamit noonu lay def ki falu tey jii Macky Sall lii dina ko wan ni ko ku fi toogee bu fi jógee ñi topp ci ginnaawam ku ci lekk ñu def la niñ def Karim Wade. Birima Ndiaye. waaw ko xam naa ne nga lan moo la lan moo la bett ci mbir mi. lan ci lu la ci lan. dama la ne Birima Ndiaye nga ni ma ah. non parce que rek fu ne nii nga ni Birima Ndiaye. nëb nëb ma yàlla dogalal club. bari naa ci morom nag. waa d' accord kon maa leen du nuyu ñoom ñëpp. bon xam nga affaire kaso xalifa euh, amul benn jullit bu ñuy tëj sa nawle nga ci kontaan ah man de bokkuma ci loolu ndax nag jullit laa te xaw ma fu may mujj. Hmm. mais il faut ñu xam ni feeg réew mi ngi am feeg état ngi am ñuy tëj di tëj semaine bu jot ñu tëj ay sénégalais. ku ñu toj tëjit say mbokk dinañ jooy am leen naqari mais réew mooy doxe noonu le cas de Karim Wade cas bari coow la c'est normal doomu président de la République la woon yor ay ndombay tànk yu bari ci réew mi <laughs> buñ ko jàppee c'est tout à fait normal mu metti mais c'est tout à fait normal si parti ba mu bokk jóg pour poser acte politique pour wane ni def kuñ jàpp rek ngeen dara mais justice moo nekkee noonu justice rey na sax te fekk ka ñu rey nekk nañ deful dara tëj na kañu tëj ne deful dara mooy le cas de Karim Wade mais il faut Sénégal xam ne du li am tey du tey la njëkk avant may juddu Karim Wade Mamadou Dia ëppoon doole ëppoon ko tur ëppoon koy responsabilité ci réew mi ëpp koy xaritu kilifa yi diine ëpp koy xaritu kilifay aada dañoo xëy jàpp ko Abdoulaye bi moo nekkoon avocat am à l'époque na Sénégal tàkkuloo mais métti woon na la registre yi bokkul waaw non may ma rek may gal non lépp rek homme politique bu ñu la mm. parce que bu dul loolu ñu ngi tëj bari na te kenn waxul boo gisee ñu wax ko kaaw Karim parce que c'est un homme mm. un dirigeant de la République sénégalaise moo tax coow li bari mais bu doon loolu kenn du coow non ma bëggoon naa ne yàgg na ñu mel noonu mm. Idrissa Seck il de Abdoulaye Wade directeur de campagne de Abdoulaye Wade directeur de cabinet du président de la république ñu tëb ne ko jël nga nangam dañ laa joxoon ab pañeen jox ñaar fukk war caanee ñëw fekk fa juróom-ñett di la ko laaj tontoo déggoon ngeen wax jooju ñu xëy fekk ko këram point aux yeux aussi de tout le monde tëj ko hmm. ba mu yàgg ba ñëpp ne tëj ba tëj ba tëj ba ñu xëy ne ko dafa woon dara gënal dem ñibbi est-ce que taxoon na Sénégal tàkk xaadu sénégalais hmm. Idrissa Seck am nay mbokk am nay am nay parti politicien la woon loolu aussi Karim nañ ko def na wala deful en tout cas ñi àtte jàpp nañ ni def na ba jàpp nañ ko partem mi ngi expliquer Sénégalais yi wane ni Karim Wade deful dara mais beneen parti bi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall ñoom ñu war a aussi réew bi fondement wu jàpp bi. li am solo li ci am mm, solo mooy. Mm. alalu réew moom ku ko jël ñu topp la. très bien ku ko jëlul. Mm. te war laa topp mais dafa am lu ma jaaxal aussi. loo xam ne d'accord ma ci. Karim Wade bu nekkee ci parti Macky Sall jiite réew mi. Sénégal de ko na nga topp ñi jël ñëpp Macky Sall choisir rek waa PDS ne ñoom rek ñoo jël di leen jàpp ña bàyyi PDS ñëw ànd ak moom làqu ci ñoom te man jàpp naan ñoo gën a dëng ñu gën a dëng ci réew lañ bokk mu tëb taxaw juste bi aussi taxaw ne leen defu leen dara loolu aussi day am problème su bëggee même rek su bëggee nit ñi gëm li muy def mm. na boole ñi bokk ci moom ak ñi bokkul ci moom yamale leen ça m'intéresse li ngay wax nii mais ñu dellu soit tuuti rek si yow avant Charles voilà merci euh, wax ñu loo ci xalaat yow si d' si bi verdict bi daanoo ak li ñu si doon njort li ñu si doon ragal finalement non li si doon ragal non ñun ragalu ñu woon dara wax nañ ko fii fii la papier surtout wax ni euh, lundi ñëpp dinañ xëy dem liggéey dara du fi am loolu moo fi am c'est-à-dire que ñen nag bon bëggoon nañ ay surenchère bëgg a dëkk bi di si wax di si alimenter loolu amu fi yoon benn sens parce que ku xam Sénégal ak loo xamante ne moom moo tëral dëkk bi ak ay socle yoo xamante ne mu ngi fii si biir dëkk bi mm. muy gannaaw yoon ak lépp muy diine muy tarixa yi ak lépp xam nga yenn yi mënul mënul yëngu mënul am Sénégal bu dee si côté boobu wàll boobu mais man lu ma si gën a gis daal mooy que ñu xë ñu ma gën a xalaat wax nañ si affaire bi mooy problème bi mooy comment on a pu en arriver euh, dëkk bi naka lañ fi mun a bàyyi euh, nit ñi di dem di dem di dem ba loolu am ba mu diis ba ñuy wax ay centaines de milliards ba ñuy wax ay milliards di fi tëj ay nit alors que am na fi ay institutions maanaam lu fi ne ça sert à quoi finalement mm. est-ce que les hommes politiques si biir dëkk bi mën nañ def lu leen neex bu ñu fàtte que fii l'actuel président de la République nekk fi président de l'Assemblée nationale am lu mu wax ne tout simplement da bëggoon convoquer à l'époque euh, Karim Wade bëggoon ko convoquer à l'Assemblée mu jur lu muy jur mm. suñu biir bët quoi ñuy que dafa am lu mënul politiciens yi mënuñ jël dëkk bi muy dox selon leur horloge selon leur calendrier mënul ne am na fi ay institution ou alors ces institutions ne valent absolument rien du tout et on s'en débarrasse mm. ce qui fait que contribuables yi duñu fay ñooñu mm. parce que sa coûte quand même beaucoup d'argent aux contribuables nga fi am ay cours des comptes di fa am ay lu bëri fii nga leen di fay sa xaalis mooy ñuy liggéey mm-hmm. et il y en a très y huit cent mille personnes qui huit cent mille personnes après bon ñu leen ay juuti la ay affaires yooyu ngay toog et puis finalement politiciens yi selon seen calendrier bii dam koy teg si kaw table bi beneen bi ma teg ko si dans le tiroir saa yu ma neexee bés parce que tu es un adversaire ma génnee ko loolu moo fi am te loolu moo fi nar a taxaw je pense que il est regrettable par contre euh, comme <laughs> maa ngi si doon waxtaan dem ba euh, ak benn xarit Karim Wade a rendu un très grand service à la nation sénégalaise en étant le premier APE dafa indi ñëpp ñoo xamante ne yaa ngi fii wala neewook fii yaa ngi fi woon yoon boobu ce n'est pas pour Karim Wade seulement bu fekkante ne moom rek moo ko nar a fay kon nañ leen xoolaat léegi xool lu ñuy def pour moom parce que nag il est hors de question qu'il soit le seul à payer pour tout le monde. très waaw déjà dañuy rafetlu jàmm bi nga xamante ne moo topp ci euh, procès bi mais man li ma ci gën a rafetlu mooy euh, tournure bi nga xamante ni moom la jël aujourd'hui mm-hmm. xam nga euh, depuis mise en demeure bi depuis mise en demeure Karim ba verdict bi di tombé. Mm-hmm. Euh, ci défense bi ak euh, opposition bi personne n'a été d'accord hein, sur la CREI c'est-à-dire que dañoo récuser ah CREI ba procès ba nu mu génnee moo dégg nga euh, c'est un verdict politique et tout xam nga dégg nga lu lu nu mel. mais man li ma constaté mooy aujourd'hui am na beneen discours bu bees beneen discours qui qui renforce un peu notre justice parce que bu farando mag kii Karim Wade. ne mm. nous avons foi en notre justice. parce que am na benn voie de recours mooy pourvoi en cassation. Mm. Euh, dem euh, à la cour suprême pour mu réexaminer réexaminer li nga xamante ni moom mooy euh, business bi. Mm. en sachant que si les faits cour bi du si ñëwaat c'est-à-dire que les témoins ne reviendront pas. Mm. juge du ñu nekkaat si ay defat le procès. ils vont se concentrer sur le droit. est-ce que y a eu des erreurs de droit. te waa PDS yi nga xamante ne ñu ngi. ils ont légitimé, ils ont encouragé la Cour suprême pour dire que nous croyons à leur sincérité et hmm. surtout, c'est des professionnels. Euh, kon wax ji farankulaay na donc hmm. on remet le pouvoir au pouvoir donc hmm. la justice donc damay euh, ñaan euh, xam nga munoo nangu tey dara nga bañaat ko suba c'est vrai CREI yi c'est un débat de de fond xëy na am na ku nekk loo si xalaat ak loo ciy gis am na insuffisance parce que même ñi nga xamante ne xëy na ñoo faro ci côté euh, pouvoir bi. xëy na gis nañu ay considérations yoo xamante ne war nañ ci taxaw parce que y a des insuffisances de la CREI. Hmm. loolu juristes yi xëy na buñ si génnee dinañ xool ñoom nu ñu koy régler. mais léegi dépasse nañ CREI maintenant ah pour waa cassation la mais ñii mu concerné aujourd'hui ils ont dit ñun gëm nañu ñi mun nañ seen liggéey. Hmm. te indépendant nañ kon léegi pour man procès bi premier partie bi moo jàll il reste la deuxième partie. Hmm. ñu xaar. pour euh, pourvoi cassation bi lan lay joxe. Hmm. mais bu ko joxee tamit ñu accepté ko parce que auparavant. on a accepté la légitimité. Euh, te Cour suprême moom xam <laughs> nit mënu ko remettre en question. beneen bi euh, l' autre aspect. Uh-huh. c' est tout le monde l'a dit hein quand les gens ont réagi. Hmm. il ne faudrait pas que mu nekk. Euh, euh, la victoire des, mm -hmm. des, des, des vainqueurs hmm. ou règlement de compte mooy li ñëpp wax quoi ku nekk ak sa formule noo ko waxee c'est-à-dire que <clears throat> Karim c'est un citoyen Euh, justice sénégalaise moom moo euh, xëy na xool ne dafa am ay manquement mu daan ko mm. mais ci li ñu ko daan s'il y a des cas similaire on n'a qu'à au fond pour que euh, li ñu sasoon parce que dafa bokk si orientation wala bokk programme mu Macky sobriété bonne gouvernance mm. mooy corruption bi enrichissement illicite yëpp c'est faisceau la c'est vrai mais yëpp moom moo moom moo ànd mm. donc Macky a été élu il a voulu xëy na respecter ses engagements. Mm-hmm. mu commencé ko noonu moo xam ce qui le motive ou pas mais dans tous les cas. Mm-hmm. bu mu yem rek ci euh, Karim. très bien euh, justice des vainqueurs. Mm-hmm. loolu baaxul te dafay euh, yàq image. li nga xamante ne mooy. très bien Macky ak li mu li mu nar wala li mu bëgg ak. ci réew mi professeur noo gisee. dañuy baamtu li ñu waxoon rek parce que jotoon nañ ci wax maa ngi lay wax ne xanaa peut-être actualité bi moo ñu imposé thème bi mënuñ cee ñàkk a wax mm. mais liñ ci doon wax pour l'essentiel wax nañ ko ci euh, dañu ne am na loo xam ne exigence populaire la woon maanaam askan wi moom moo demoon boo ñaan loolu mm. ne impunité maanaam def la neex def maa tey na fi jógee ñu ne pasar pasare alal réew mi na fi jógee donc ñi fi nekk yaakaar ne ak majeur bi ñu war a mën a poser pour réaliser aspiration pop boobu mooy instaurer CREI du ma dugg ci débat bi est-ce que CREI légitime na ou pas ñu yëpp wax nañ ko mais donc dama ne tout dépend de l'intention bi nga xam ne moom moo leen animé parce que ni ñu koy faral di waxee la moralité d'une action kenn du ko déterminer ci réussite am wala ci échec am mais mm. ci intention fondamentale bi nga xam ne moom moo ko lal la bu fekkee lii fi jóge li ko laloon mooy démb tooñoon na ma tey dinaa ko won ne nag ban maa toog ci jal bi dinaa fayu bu fekkee loolu mooy intention bi la hmm. assassinat la échec démocratie la trahison populaire bu fekkee nag li ko tax a jóg mooy dégg naa yëngu-yëngu ak riir bi nga xam ne moo jóge ci askan wi yegg si ci man mooy càcc alalu réew mi pasar pasare ko na fi jóge mooy maa tey maa la ëpp doole duma la na fi jóge bu fekkee looloo ko tax a jóg dañ koy nawlu di ko rafetlu di ko tàccu hmm. parce que dañuy wax ne mënul am démocratie te ñëpp joxewuñ seen wàll ci li nga xam ne mooy pàcc bi ñu ŋànk munuñ am démocratie tant que li ñuy wooyee séparation des pouvoirs mu effective entre l'exécutif entre le législatif et le judiciaire mu nekk kon nag au-delà de l'émotion bi mu suscité c'est tout à fait normal mais biri Birima am na lu mu wax lu am solo sanq xam nga bi nit ñi naan réew mi dina tàkk ak ñoom seen man la xëy na peut-être euh, suñu wayjur âge sur mbay bu fi taxoon moom dina ree parce que di nga koy yàgg dégg muy nettali nam ko waxee du Dia ak Senghor mm. nam ko waxee Galandou Diouf ak nangam Blaise ak nangam mu ngi mel ni joute politique yooyu mm. du gan fii ci réew mi yàgg na fi waaye la république a toujours été sauve mm. kon nag ñun li ñuy ñaan mooy lii mu nekk exemple mu nekk modèle ba képp ku ñuy denk alal ci réew mi wala ñu lay dénk responsabilité nga xam ne kat am na ay matuwaay yu jël yu wóor mm. bu alal réew mi kenn dootu la bàyyi mm. nga def ko ca dam la neexee nga pasar pasare nga yàq ko donc jàngat bi ma ci mën a am mooy xëy na luy renforcer démocratie la encore une fois man mënumaa dugg ci détails yi mm. ndax CREI yi légitime na ndax peine bi ëpp na ndax peine bi ëppul j'ai dit ça a une valeur didactique maanaam du point de vue de principe ki xam ne yoroon na alal réew mi ñu ne ko kaay ñu laaj leen da nga ko defee woon càmbar ko mm. wax dëgg yàlla loolu moom mooy dundal démocratie te ñu fexe comme ni ko ñëpp waxee aussi mm-hmm. ñu ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy yor nguur gi ñu dem jusqu'au bout de leur logique mm. maanaam comme ni ko Papis ak ma ñëpp waxee fi mu nekk nii mm. bu mu am xaaj ak seet parce que ku nekk xam na ne am na ñoo xam ne ñu nga woon démb fële mm. gis nañ leen dégg nañ leen am na sax kenn tey ku ma dégg tàbb nañ ko am na lu ko jox mais bu ñu def muy rafet mm. mooy su ma sañoon doon lañ ko ñaan nañ commencé ci ñooñu sax ñu mm. ñu yeggee dans cette logique là bu mu mat bañ koy yemale rek ci Karim parce que encore une fois sénégalais yëpp ñu ngi taxaw di fekkee nag da jël Karim euh, daal di ko ne ràpp ci kaso gi pare kenn déggatul affaire enrichissement illicite kenn déggatul traque des biens amatul kenn ku ñu inquiété mm. donte sax du dëgg peut-être mais dina conforté ci ñenn ñi thèse bi nga xam ne dañ naan fayu la mm. dañ naan dañuy sos ay mbir mais dara amul mm. kon wax dëgg yàlla loolu laa mën a wax très bien professeur alors balaa ñu fi jóge je war a joxe àllarba parce que sama <laughs> sëriñ moo ñëw sama sëriñ en presse écrite Momar Sène Ndiaye mais juste avant la la chronique de Bouba aussi ah <laughs> waaw peut bu nga ko wooyee chronique dégg naa li gars yi di wax. man en fait man man damay damay je reviens en arrière. parce que euh, comme ni ma koy yàgg waxee ñun dañuy gaaw a fàtte. Hmm. gis nga tour Karim bi ni mu jógee tey noonu la jógee woon en 2012 si li mu occupé woon parti bi mu occupé woon ki suñu réew. bi 2012 bi nit yi di kaas fii di toj turu Karim Wade nga doon dégg papa ji dafa bëgg jël doom ji jox ko nguur gi ñi ñii ñi ñiy wax tey ñii ne c'est injuste dara ñooñu ñoo doon wax y a deux ans. démb moo wax moo tax tey ñëw. Hmm. gis nga man du ma juriste ah, mais pour man ay CREI dafa dafa am solo si ci si réew yu mel nii. parce que pourquoi pourquoi ma koy wax mooy xam nga Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne ñun dañuy joxe exemple lu démocratie li ñu wax que ni Sénégal day inspirer yeneen yeneen euh, euh, pays africains yu bëri. Hmm. gis nañ fi Burkina Faso bërki démb gis nañ fi ay ay jeunes sax yu ñu fi jëlee yóbbu leen ba beneen dëkk. Hmm. pour ñu suuxat ndaw yi pour ñu bañ. parce que li ñu xamal Afrique yàgg ko xamal Afrique moom mooy Afrique président yi dañuy dañuy jël nguur gi di ko ñadd loolu la ñu amoon problème ci 2012 loolu moom moo teyoon xelu nit yi indication yëpp yi fi amoon moom mooy que président Abdoulaye Wade acte yi mu doon posé yëpp c'était peut-être éventuellement dafa doon xalaat a jox euh, nguur gi doom ñëpp hmm. nekk ci di ci xeex ba ba loolu passé ba tey ñu ñëw donc bu ñu passé affaire de bataille affaire démocratie un je pense que xaw nañ ko gagné Sénégal. Mhm. mais après boo boo dépassé loolu dafa am leneen luy ñëw xam nga lan mooy mooy ñëw nit ñi ñoo dépassé ay affaire way dëkku démocratie la dëkk boo xam ne la après dañu ne boo yoree réew yore ay deniers publics da nga war a rendre compte moment même bi ngay exercer c'est c'est le c'est la c'est le Sénégal qui met un peu la pression si ñi ngi ñuy diriger ji nga ministre bu fal woon ci 2000 euh, entre 2000 liberté boobu nga doon am pour pour toje comme ni ko gars yi di waxee wala dara mais tey amul non c'est vrai parce que. y a l'OFNAC aussi. non non non non attends donc mm. avant OFNAC wala dara. Mm, mm. peuple sénégalais si seen bopp. ñoom ñoo def pression. Mm. indirectement si état ba nga xam ne fu mu nekk lu si waay di def di nga ko xoolaat ñaari yoon. et ça c'est très important. il faut que nit ñi nga xam ne ñu jóg di def politique xam nga nit boo xam ne dafay jóg pendant des années. muy dugg ci àll bi di xeex di saaga di xasante di lu ne ñu koy waxante seen biir après tu te poses toujours la question à savoir mais kii dafay def lii parce que dafa bëgg réewam wala dafay def lii dafa amul mu ciy xaar comme combien de parti politiques on a au Sénégal. Hmm. peut-être plus de 200. oui si biir 200 yooyu am na ci 150 yoo xam ne ñi ko jiite lenn rek moo nekk seen xel nan laa mun a duggee si nguur gi. Hmm. pour mën a am dara. Sénégal rek ngay wala Afrique ngay ñëw nit boo xam ne ministre la woon depuis 10 ans la la nekkatul ministre. amul benn liggéey boo xam ne mun na la lii laay liggéey te ba léegi mi ngi dund ci benn niveau boo xam ne tu te demandes mais fan la xaalis bi jëlee donc dañu dañu nekk si benn benn benn euh, situation boo xam ne peuple bi seen bopp ñoom ñoo bëgg plus que ay mm. démocratie ay alternance loolu dépassé nañ ko xam nga lan la ñu bëgg nit boo xam ne bu ñu la joxee suñu alal pendant que ngay exercer mm. ñu am bët ci yow donc aujourd'hui le cas Karim Wade buy am ñu yóbbu ko CREI yi ñu ko CREI yi dafa war a exister parce que suñu homme politique yi africain yi il faut qu'on leur mette la pression tout le temps boo leen gisee Barack Obama bi mu ñëwee Afrique bi mu falo te nit lu ñuul la comme ñun bi mu demee Ghana lan la njëkk a wax africain yi jàkkaarloog ñoom ci bët euh, euh, François François Hollande wax na ko gars yi daf leen di xool ñoom ñëpp ñu naan nii mu naan leen bàyyi leen ngeen accroché wu ci pouvoir bi mm-hmm. bàyyi leen ngeen jël alalu africain yi mm-hmm. les président africains yi nekk ci monde bi yëpp fii ku fi dem France dem fi Suisse dem fi Angleterre wala États-Unis ñoo fa yor ay milliards yoo xam ne bala à la limite dirigeant français yi sax yooyu bu ñu soxlaa xaalis si ñoom la ñuy ñëw pour jël xaalis te loolu dafa war a dakk te nit ñi seen bopp ñoo dofatul képp ku ñu jiite muy Karim Wade muy keneen il faut pas qu'on soit émotionnel aujourd'hui la hmm. le le cas Karim Wade du euh, Karim Wade du mbër Balla Gaye war a bëri ak Eumeu Sène ñii ñii faral Balla Gaye ñii faral affaire fan suñu alal la suñu avenir doom la hmm. suñu suñu suñu dëkk la dañu war a def ba nga xam ne amul man faraluma kenn xam nga kan laa faral ki nga xam ne dañ ko jox suñu alal mu téye ko def ci li mu ci war a def muy hmm. Karim ak muy keneen il faut pas que nit ñi ambale dañu bëgg affaire mode affaire u kii bu fekkee Karim Wade jël na suñu alal hmm. ah Sénégal ju jugé ko parce que aussi ci biir procès bi bëri na ay nit ñu ñëw ay doomu sénégalais ñoo xam ne am nañu famille am nañu crédibilité ñu ñëw taxaw témoigner ne lii ak lii am na mais loolu fan lañ koy def dañuy xëpp rek jël yëpp ubbi benn benn force rek dugal ko ci il s'est passé des choses bëri na ay société yoo xam ne nekk nañ fii ay nit doomu sénégalais ñëw nañu ne nii la demee mm. mais ana loolu fan lañ koy waxee way jëlul fii du affaire affaire bi du amul jëlul fii amul jël du Karim Wade rek mais Karim Wade li ñu daan wax 2012 moom la ñuy wax tey après nag ñuy ñuy suivre dinañ suivre naturellement léegi aujourd'hui lii dafay teg day teg pression Macky Sall pendant que muy exercer suñu pouvoir bi nekk ni si ci mandaam bi nga xam ni sénégalais yi seen bopp ñoom ñoo dafatul aujourd'hui ku fi laal dara gars yi dinañ jóg dal sa kaw moom parce que sa adversaire yaa ngay xool parce que couteau bi ngay jam nii tey gars yi moom la ñu génn suba jam la ko de hmm. donc ku ciy def dara na ko def dara mais il faut pas que qu'on soit emballé si ay affaire wéy injustice affaire yooyu ñun ñu am li ñu soxal suñu alalu réew hmm. nañ ko bàyyi tey bàyyi ko jël te dirigeant africain dañu war a arrêté. Mm. dañu war a arrêté loolu. très bien merci beaucoup Bouba alors euh, ñu ñëw si éclairage yu euh, Momar Seni Ndiaye euh, longtemps jiite service politique bu bu Le Soleil quotidien national en même temps également liggéey na si yu bari si wàllu tas xibaar ci réew mi jamono ji moom moo jiite. tu yéen boobu ñuy woowee le témoigner pour reprendre Mohamed Ndiaye de RFM donc muy le témoin alors monsieur Ndiaye tout d'abord comme bi nga dégloo gars yi ñu wax ba pare. yow lan moo njëkk nekk si yëg-yëg après après bi lii xewee bi yëg-yëg bi xewee. <clears throat> waaw jërëjëf Khalifa euh, man lii xew bettuma hmm. ndax boo gisee mbir yi ni mu dooree ba fu mu mujjee ci njëkkoon ñu jëkkoon bind ne Karim Wade dinañ ko jàpp. Hmm. ndax li waral ñu koy jàpp mébét la boo xam ne bi dañ ko laloon. Hmm. laata mm, euh, ñuy agsi fii. am na benn interview bu ñu génnee suñu journal ku ñuy wax Albert Bourgi di avocat. wax ci ne moom ci boppam Macky Sall yónni woon na ko ci Karim ne ko boobu procès bi xaajul am. Mm-hmm. lii mu yor ne ko indi su ko indee duñ ko jàpp su ko indiwul dinañ ko jàpp xam nga loolu dafa nekk lu tey xel nañ waxante dëgg. Mm-hmm. maanaam ñoom amoon nañu mbébét dal ci koom man Karim Wade mosuma ko gis mu daje ak moom télévision laa koy séedee. mosuma ko gis nii ci bët nii mosuma ko gis parce mm-hmm. bi mu nekk ci nguur gi boobu maa ngi sonest nekk ma nekk directeur communication. nekku moom dans la vie euh, active de la presse. donc mébét la Ablaye Abdou Diouf moo créé euh, CREI ñaari yoon la ko doxal mu xam ne li jëmul kër mu bàyyi. Ablaye Wade li mu fi nekk mosu ko yëngal. jàmm nag jàmmu tey jàmm ju sax moo ko gën. ndax ku yaakaar ni tey jàmm ji am na nii te ñetti fan rek moo dox suñu digganteeg procès bi amaana aussi kenn ñaanul yàlla ay. amaana aussi am na yuy ñëw war na mën a indi leneen lu dul jàmm te kenn ñaanu ko yàlla. Mm-hmm. waaw kenn ñaanu ko yàlla. Mm-hmm. ndax mbir boo koy def te laluwul te justice boo déggee ñu wax justice day ànd ak équité mm-hmm. maanaam booy teg yoon day ànd ak yemale. yemale te yoon bu àndul ak yemale day indi safaan. loolu ñëpp xam nañ ko te CREI euh, tout à l'heure professeur nee na du dugg ci débat bi mais loolu il faut ñu dugg ci ndax loo xam ni la tey ji dugg na ci réew mi loo xam ni. kenn mëntu ko dindi parce que CREI sax même bu fekkee ni man ànduma CREI te dina jafe nga xëy suba da nga dindi yi parce que am na lu ñu def ba pare euh, CREI boo xoolee démocratie dama ne bu fekkee dañ ko posé en termes juridiques bien sûr bien sûr est-ce que laa jëm foofu laa jëm foofu laa jëm man damay xool rek comme ni bu ba waxee sànq boo xoolee démocratie yi nekk ci àddina bi les démocraties majeures mhm. gisoo kenn ku ci am ak CREI te ñoo ñooy suñu royukaay amul CREI amul fenn Sénégal la ko fi ak Niger Niger dañ fa dem ba ci digg bi ñu annulé ko xam ni lii mënu parce que. Euh, ah parce que ndaxte benn euh, kuréel la goo xam ne gii kuréel fayantoo la. Oh te kuréel fayantoo nag dangay ñëw ne maa ni ci nguur gi tey indi CREI yi. Abdoulaye Wade bu ko neexoon en deux 2000 mu jàpp waa PS yëpp bu ko neexoon mu génn CREI yi jàpp waa PS yëpp. Mm-hmm. parce que ndaxte waa PS yi dañu duggoon ci ay yoo xam ne jël fi xaalis bu du jeex. Mm. dégg nga fooye ko ñëpp xam ko gis seen bët teg ci seen bët dégg dégg nga comme ni ko boobu waxee sax day gis koo xam ne nekk na PS ba jóge fa depuis 12 ans. ba léegi ñu ngi dund ñu ngi dund ku mel ni tey Djiboka. Djiboka dégg ngeen li wax ci presse bi tey. Mm-hmm. nee na CREI monstre nga koo ci bëgg jàpp jàpp ci CREI yi mi ngi mel ni rek xool naa buuba neexuma ma xëy suba ne buuba am na lii am na lii am na lii ñu def enquête jël ay ci indil ko. mais aspect dissuasif bi yaakaaroon ni gën. loolu aspect dissuasif mënu ci nekk. mënu ci nekk mm-hmm. parce que lu tax mënu ci nekk ndax tey jii falu rek da am sa CREI yi bopp waaw parce que ku falu da ngay am sa CREI yi bopp maanaam da nga naan euh, man am naa crédit damay parce que crédit ci lu mu ñaar ñaari moo ko lal loo xam ni fu mu am day indi safaan. Mm-hmm. maanaam dénonciation maanaam boole. Mm-hmm. gis nit da nga ni kii amul wala xamoo fu mu jëlee alalam nga ni moo ko amul donc dañ ko gistu deuxième fois bi mooy l'inversion de la charge la preuve maanaam yow dès l'instant wu yi xool na la rek ba ni yow am nga mënatuloo rëcc. mënatoo rëcc. ah mos nga ko prouver liñ lay ji. prouver femmes yi mënatoo rëcc parce que ñoom bu ñu ñëw dal bu ñu dal ci sa kaw. day fekk ñu dal sa kaw am ci ay ay. soit ay firnde la wala am ci xel ñaar boo xam ne bi moom moo tax ñu war a dal sa kaw. donc dafa nekk institution boo xam ne bi. dañu seet démo bokkul ci standard mm. institution sur le plan international et démocratie yi bëri yi ci ëpp majeur yi amuñu ko mm. ndax dafa am tout à l'heure Charles wax na ko y a les codes de contrôle la cour des comptes y a les l'IGE est là képp Karim Wade il a été ministre il a géré man wax ma ne jël na wala jëlul parce que xawuma ci dara wax naa mm. encore une fois Karim xamuma ko musuma ko gis dégg nga mais ñooñu Karim Wade mënoon nañu ko jàpp beneen anam a leer bu dul comme la haute cour de justice mën na nekk yeneen institution de contrôle yaa ngi fi yooyu yëpp mi ngi ci jëluñu ko ñu wëlbatiku dama lay wax ne ne falaay foofu laa bëgg daane li mhm. ci nguuru Ablaye Wade Ablaye Wade utilisé na à peu près cent cinquante six ministres ñoo xam ne ñi jaar nañ ci loxo Abdoulaye Wade cent cinquante lu ko teg hmm. amul kenn kuñ ci jàpp comme ku dul Karim Wade te ñu ci bari tey jii dem nañ fu ñu laqatu ji mais loolu dafa nekk lu xaw a tey xel nañu waxante dëgg hmm. aussi bu fekkee ne dañu bëgg nag réew mi tegu ci jàmm parce que jàmm ji ñu wax ni sëriñ si ñoo ko indi fi hmm. sëriñ si woote nañ fi jàmm ba tey kenn déglu leen ah hmm. am na fi daaw bi fi tàngee ba tàng sëriñ ci jéem nañ dox diggante bi di lakk pneu lakk hmm. dëkk bi mais boobu Sénégal la jóg du woon une part du woon un parti politique waaw xëy na ne hmm. jàmm bu ñu bëggee jàmm tey hmm. bokkul ak jàmm ji sax su ñu bëggee jàmm ji sax dañuy teel teg yoon kër gi ci yoon très bien kii nekk président am na ñu ko wër am na ñu nekk ci moom ñoo xam ne Abdoulaye Wade may na leen alal ju dul jeex ñooñu ñëpp tey ji kenn laalu leen kenn kenn insidu sax benn action contre très bien très am na am na ñaari objection yu professeur bëgg a wax avant Charles ak Birima euh, Birima va répondre sans doute si si attaque par rapport au parti socialiste xam naa boobu boobu la laajee parole boobu nga laajee parole man d'accord ak euh, professeur Ndiaye li wax quoi parce que bu ne par exemple ab Abdoulaye Wade en 2000 mënoon na jàpp waa mais en 2000 Abdoulaye ñaata waa PS yéen la toroxal da lay woo nga ñëw mu la ñëw sama parti mbaa ma tëj la fi la fekk nii ñëpp non même rek may gële ñi am seen dignité ak seen ngëm-ngëm ñoo resté au parti socialiste. Mhm. ñaata dignitaire parti socialiste ñoo summi seen veste topp Abdoulaye Wade mu menacé leen toroxal leen ci diggu réew mi ñaata nit la Abdoulaye tëj tëj na Abdoulaye tëj na ay ay ay responsable politique PS. ña mhm. bañoon ànd ak seen dignité ñu tëj ci kaso bi. attends dama mhm. bëgg. bu ñu fàtte li xew nguur gu fi falu. tëj nga ci régime bi nga passé de tout le temps Abdoulaye tëj na waa PS. Hmm. toroxal waa PS jéem sax taxaw na fii di dénoncer le la maison du parti socialiste. devant les yeux sénégalais bëgg ko nangu il a fait une pression internationale pour Abdoulaye taxaw xanaa ngeen loolu. Hmm. Abdoulaye di tudd di tudd Abdou Diouf di di di n'importe quoi def na ko bu ñu gaaw fàtte. Mm. Abdou Diouf lim Abdoulaye Wade li mu man ci PS yëpp def na leen ko ah. j'ai l'impression que li ngeen di wax soriwul. en fait anglais bokkul waaw même Megal même Megal mm. mm. deuxièmement CREA yi maa ngi ñoo bokk wax. man dama d'accord ci mu am réew ci réew mi xam nga lan la nañ xoolante Sénégal yi wax ma ban Sénégal à l'époque de Abdoulaye Wade moo ñeme woo Karim na ko da koy contrôler à l'époque nekk UG nekkal loo man di doon ku ñeme woon a woo Karim Wade jamono Abdoulaye Wade di xool ay a essayé dama ndax nañ koy toroxal ko te dinañ gudd nelawul ay mbokkam nelawuñu devant tout le monde ku ñeme woon a taxaw di xool mbiru Karim Wade amoon ci réew mi très bien très bien euh, mais professeur après nga ñëw waaw euh, boo gisee parce que li nga wax au départ ça m'a un peu surpris nga déjà ñoom dañu amoon mébét tëj Karim xam nga loolu man daf sama pose quand même problème parce que bu fekkee dès le départ ñoom dañu amoon mébét tëj Karim ça veut dire que àla kulli xaal que mu def que mu deful ñoom dañu amoon ah, intention tëj moom dëgg la loolu moom dëgg la ah déet waaw ne yow loolu nga jàpp loolu laa jàpp man loolu laa voilà nga jàpp et puis dama euh, moom problème mooy boo gisee quand il faut que ñu nangu ne cristallisation bi mu amoon ci Karim mais am na lu ko waral posture Karim waxuma aux yeux du pouvoir mais aux yeux tous les Sénégalais dafa nekkoon une posture boo xam ne ça dérange Pourquoi Parce que xam nga ko. Hmm. il avait pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays-là quelqu'un qui cumulait ce qui était équivalent dit-on disait-on à l'époque dans la presse à cinq ministères ça c'est deuxièmement nee nga dans les autres pays à démocratie très avancée standards internationaux yi amul CREI mais j'ai dit est-ce que ñun du ñun malheureusement ñun ñoo tollagum ci am CREI parce que ba léegi mm. defaguñ suffisamment la mm. différence mm. entre les biens particuliers de l'individu ak le sens même de l'État c'est vrai que en Amérique ou en France incongruité lay doon ngay wax ay CREI mais en Amérique et en France sama compte bancaire bu yokkoo de quelques sous tout de suite ñu ne ko rapatrier ko alors que ici

am na IGE y beaucoup de corps de contrôle mais à l'époque état bi amoon na une tournure tellement personnalisée que il était mm. il semblait difficile à l'époque pour que les corps de contrôle ñu exercer combien mais de fois ñaata rapport IGE rapport IGE la ne combien de dégg ci presse bi ñu ne telle structure am na ci rapport IGE mais ñu ngi ko denc dans le ah, kenn ñemu ko wax donc ça veut dire quoi il s'est passé des choses man nee naa la mon problème n'est pas de savoir qui est coupable ou pas mais dama ne dans le principe. Mhm. il fallait que ñu yegg si une institution. qui permette de moraliser la vie publique. moom fexe boo il faut Charles muy taxaw après après ñëw si Bouba. waaw man ce que je voulais dire pour sud un pays comme le nôtre. après Papi Sow. c'est-à-dire pays comme le nôtre néew doole. Mhm. bu ñu jàppee Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade ba 2012. Mhm. nga jàpp 1500 ba muy ñëw 570 milliards la fi fekk de budget. multiplié par 3. un an après nga jàpp douze ans boo xoolee ça fait dix huit mille milliards et vingt mille milliards bu ñu bu ñu koy xayma vingt mille milliards yoo xamante ne jaar na si loxo cent cinquante six ministres ñu jalgati xaalisu dëkk bi nga xaar douze ans après pour créer mooy que tu n'as absolument rien compris a l'économie de ton pays c'est-à-dire que la gravité de cette affaire la dañuy xaar ba nga pare mën nga def deux fois sept ans mooy quatre non déglu non attends mais écoutez mais c'est ça ça veut loolu c'est-à-dire avec tous les tous les instruments lool laa wax sànq mu ne il va falloir que buuba lu ngay wax il faut que sénégalais yi jël seen courage à deux mains jarul créer yi ça dire boo fi yoree ministère mënuñu fi xaar ba ngay dem dix ans wala douze ans après pouvoir bi perte pour que ñu ñëw ñu ne créer yi. ñëwaat on a non non kay non kay moo wax la question est-ce que dama xaar Abdoulaye Wade yóbbu Karim Wade il faut il faut mu leer ça veut dire ça veut dire que absolument c'est politique absolument c'est politique et ça ne règle pas le problème de ce pays lan mooy régler le problème de ce pays mooy ñu teg ay kii yu baax ay kii yu dëgër ay institution yu am yu am doole nga xamante ne euh, qu'elle fonctionne il faut que les que les procureurs s'autosaisissent mais comment se fait-il non non dama leen di wax benn mm-hmm. exemple comment se fait-il que IG wala la cour des comptes ñëw <coughs> épingle ay gars teg ay si kaw table bi teg ay affaire ba pare justice bi ne teg teg justice bi ne man duma si bokk parce que mais loolu laay wax ça veut dire que tey ça veut dire on est dans une non attendez attendez pour dire les choses on est dans une vaste fumisterie qui ne dit pas son nom waaw man dama bëggoon ñëwaat euh, tuuti si euh, l'histoire de la de, de la CREI mm-hmm. Mm-hmm. xam nga bu ñu sax dépassé si en fait cas bi nii pour man question d' appellation dafa am une mission bu ko la mission originelle dafa am lu ko tax a jóg mm-hmm. maintenant elle peut être dévoyée ou pas ça c' est une question mais par exemple quand tu prends les les Nations Unies en France dañu instruire wala recommander les pays qui en ont besoin c' que kenn sañul wax tey Sénégal amul corruption dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ne dañu bokk ci indice bi de corruption c' est vrai que récemment le rapport a montré que xaw na baissé mais Sénégal mhm. comme dëkku pauvre yëpp dafa bëri corruption Nations Unies recommandé les pays qui n'en ont pas ñu créer instrument de répression contre la corruption loolu c'est un kon kon l'enrichissement mooy ko yëpp rek daal lubuj mm. loo xam ne euh, jaar yoon. là on a l'OFNAC pour la corruption. voilà euh, euh, mais on a tout ça. bi. on a tout ça est-ce bi doyen mu ngi wax léegi. que à à avant que ñuy susciter en fait entre guillemets ces monstres. que le président Macky envoyé na pour que ñu. wax euh, Karim na restituer li mu yor loolu kenn du ko prouver non non laisse am na amul hmm. mais dans la démarche hmm. kon amul intention de nuire benn booy lire froidement hmm. l'autre aspect mooy sur cette histoire là ce que Macky a fait s'il l'a fait par rapport à Karim après bi bi ñuy demee dans les péripéties l'État du Sénégal a proposé à tout ceux qui sont susceptibles d'avoir été mouillés dans une affaire d'argent ça veut dire que ce que Macky a fait en coulisses oui. l'État l'a fait directement au oui. et au mais Macky n'est pas la justice laissez-le finir je veux dire mooy la fameuse médiation ba El Hadj Diouf génnoon si ñu wax donc dañ ne mais attends c'était pertinent ça veut dire que l'intention c'est pas de jël nit tëj ko kaso par exemple mu jël mm. alalu réew mi après bu génnee nekk amul sens bu génnee noos ce qui est intéressant c'était mm. belle démarche xaw ma ne mm. juridiquement naka lañ koy mën a du ma dugg. mais ñu restituer les biens qu'ils ont pris. ñu avancer et on le ah, laisse après. y'a muy dem xam nga la ma wax Charles je disais la même chose mais dama ne. Euh, gis nga CREI yi même bu dee monstre la même bu dee juridiction d'exception quoi que vous puissiez l'appeler. dégg naa la sax mon ami ne c'est une fumisterie politique man du yegg foofu mais. dama ne waaw baal ma dama ne. moi j'ai rien contre la mais ça n'a aucun ah mais dama ne. ça mais dama ne Charles est-ce que tu ne penses pas que. Mm. suñu histoire politique bi nga xam ne moom moo ñu gën a jege. yeggoon na foo xam ne il fallait qu'on s'arrête nga créer une institution. qui règle justement cette situation-là mm -hmm. d'impunité et de corruption et nga agir sur les leviers yi nga war a agir pour qu'on ait plus je... besoin désormais de créer non non non attends s'il te plaît exemple je donne un exemple très simple un exemple un seul euh, Euh, maître lu mu tudd euh, bu Cour des comptes euh, je pense Collin mm. mm. a mis sur la table un certain nombre de rapports on va attendre le prochain pouvoir pour que la CREI très bien alors alors Bouba on parler après xam nga man lan moo ma jaaxal mm. cest à que des fois da ngay dégg way jàmm il faut mu am si dëkk bi wala pour man loolu intérêt man man personnellement ça ne m'intéresse pas xam nga la moo ma intéressé moom laa wax c'est-à-dire yëf la ñun ñoo ko moom avant ñuy wax waxu jàmm mooy que milliards yi gars yi di jël bu bu jaree nga dem prison que dëkk bi yëngu demal prison hmm. c'est-à-dire il faut pas ñu jël suñu ay xam nga ñun Afrique dañu am suñu ay réalité hmm. hmm. yoo xam ne dañ koy jël dugal ko ci beneen réalité xam nga muy soit c'est religieux soit c'est culturel wala dara loolu waxuñu ko lu ñuy wax c'est très simple nit bu jël suñu alal muy sama alalu doom sa alalu doom alalu pap alalu yaay carte sur table nga def dara dañ ko war a régler am na lu lu biri Birima wax loo aussi c'est très c'est important en exercice wax naa ko sànq ñi ñi nga xam ne actuellement ñi ngi occupé hmm. occupé yenn postes yi peuple bi ñoom ñoo war a gën a mën a exigeant hmm. tu sais xam nga fi dañuy wax que ni boo fi deful dara ñu carte moo la fi jëlee mais loolu wax naa la dépassé nañ ko hmm. moment bi ngay sàcc moment boobu peuple bi war na mën a am lu ñuy activé wala mm. pression bu ñuy teg si mm. parce que am mm. on est dans un pays fii c'est un petit village ji nga Dakar fii euh, Char euh, yow Charles Sénégal fii costume bi soo ko solee ñaari yoon boo rombee gars yi ne sa costume bu bleu bi tout ça c'est fii ku fi am ay million am ay milliards xam nañ ko waa ji nag munul gagner un million ah par mois deux ans après trois ans après mu yor ay milliards da ko sàcc te loolu problème bi moom mooy que dañu war a fexe ba nga xam ne boo yor occupé yenn poste yi boo tabaxee boo tabaxee këru 300 <laughs> millions 300 ñu woo la laaj la këru 300 millions bi foofu la jóge ah bon monsieur Ndiaye juste baa ngay àggali euh, man dafa am benn benn lecture bu uute ak ak bi nga def par rapport ak démarche Macky Sall ci yónnee ndaw ci Karim na indi koppar yi est-ce que loolu contrairement à li nga wax ne euh, maanaam maanaam dañ dañ ko nennu est-ce que est-ce que du une démarche pacifique pour bañ coow ak pour bëgg aussi récupérer non man xam nga loolu man du man maa ko wax Albert Bourgi moo ko wax. avocat la bu nekk France boo xam ne bii miin na Macky miin na Ablaye Wade. xëy na jàmm la bëgg bëgg contexte ci kaso dama dama rek. donc man loolu mënu ma ko firndeel. en tout cas moom moo ko wax ñu mm. bind ko ci journal. très bien boo ko gisee dina génn ci Nouvel Horizon. Mm. comme génn ci suñu journal bari ki démb. léegi bu dee loolu am na. Mm-hmm. xam nga dafa am médiation pénale médiation pénale aussi dañ koy jaarale ci yoon. maanaam. dañuy woo kii bi ay ñi nga xam ne ñoo loolu moo la posé problème on donc loolu jaarale ko mais la démarche en soi mais loolu dans la démarche non loolu bien sûr que la démarche me gêne mm. c'est pas du président la république moo war a ñëw diw dégg naa ñu ne jël nga indi li nga jël wala ñu loolu loolu du wax waxu kilifa c'est culturel affaire la comme li bu wax peut-être parce que quand on bu mooy mm. ku nekk li nga liggéey ñu xool ko dañ ko war a saytu seet la nga xam ne moo ci méngoo ak sa alal ñu ñu ñu la ko mm. li nga xam ne méngoowul sa alal ñu bàyyi Karim Wade bi ñu calculer ay salaire am li mu touché mu ngi nekk ci ay cinq cent six millions mm. bu ñu ko jiiñee ay milliards dañ ko war a jaarale ci ay cours de comptes ak ay ay cours de ñu xool saytu loolu dëgg la dëgg boobu mën na ñu mën a indi firnde yi ba mu leer teg ko ci taabal ji mais tey ji tëj nañ ko gisuñu benn milliard. Hmm. li nga xam ne moom la fi ah, ñoom Macky am na lu ñu génn dama man du ma la dog booy wax dama damay ah, ah, hmm. a am ay rupture yoo xam moom la fi Macky Sall waxoon ne dina ko def hmm. maanaam fexe ba li nga xam ne moo daan am ci réew mi dootu fi amati yooyu yi ci yi ci bari yi ci nekkoon am na ci loo xam ne mooy institution de contrôle yi maanaam ñoom IGE ñoom Cour des mhm. leen di génn présidence de la République. ndax bu fekkee ne ñooy dañuy wéy ci ndigalu président bu buñ dee seen ay dossiers ñëw ni Macky kii ak kii ak kii kii jël nañ ko société bii contrôlé nañ ko gis nañ ne li fi am na juubal mu jël tànkam teg ci moom ci boppam sax wax na ko Jeune Afrique mhm. nee na Jeune Afrique am na yu bëri yoo moo ci teg tànkam mais dans quel pays on est yow da ngay teg sa tànk ci lu la neex nga mhm. tegi sa tànk ci lu la neexul ñun nag par parloo boobu moo ñu gêné créé warul ta am d'accord parce que ñun duñ ñoo ko wax dégg nga euh, banque mondiale ñoo ne lii ngeen di def di di di dàq nit ñi di leen di leen di leen bund xatal di wuti ñoom xaalis boo leen koy def investir dañuy daw. oh damay terminer bu baax euh, léegi. organisation internationale yi. Amnesty International RADDHO ak comité national ñoom ñëpp nee nañu ne CREI te ñooñu ànduñu nguur gi ànduñu ak opposition. Mm. ñoom taxaw nañu ne CREI baaxul. Mm. mais comme léegi nag ñun dañuy seen ndax CREI. y a que les ñoom ñooy wérante politique ñoom ñooy wérante waaw mais non mais politique ñoom ñooy wérante da ngay bañ dama ñu sàmm xamalu mm. muy mais non non parce que non dañu am ay ay ay institution de contrôle mm. nañ leen génn présidence de la république jox leen indépendance mm. dossiers yi nga xam ne war nañ ko li ñotti ko ba xam li ci nekk ñu bàyyi ñu teg ci yoon boobaa xëy na Karim Wade duñ ko teg six ans may duñ ko teg sax ñaar fukki at dégg nga ndax ku yor xaalisu réewum li mu yoroon buñ xoolee ci ni ko ji mais ko tànn ko rek hmm. muy vingt cinq personnes que bu leen fàtte ne au départ liste vingt cinq personnes lañu taxaw hmm. ne ñoom hmm. moom dong lañ ci jàpp ñi si des amuñu sëriñ amuñu nijaay amuñu fa ñu leen di bàyyi ñuy tambambalu dans un premier temps dañ leen tere bu ñu duggu bu ñu génn Sénégal tey jii ñu ngi doxantu jël seen avion di dem mais loolu mooy lan. très bien loolu mooy lan vas-y Bouba non non mais Birima après ñaari affaire de femme mooy hmm. comme man man ce que j'ai dit. ci ci hmm. début bi. le cas Karim Wade c'est un benn cas bu ponctuel la. Hmm. c'est pas parce que ñu ñeneen que dama koy défendre pour man comme li ma doon wax. c'était à la limite la priorité. nañ nañ dellu si waat si si réalité wax fa dëgg yàlla te yàlla tax nañu delluwaat si réalité il faut pas que aussi ñu fàtte. affaire mbir yu bëri aujourd'hui ministre de la justice nee na am na ñeneen ñu ñuy ñu ñuy kii ñu ñuy topp mais nañ xaar dañ nañ xaar pour seet ñooñu mhm. exactement est-ce que jël nañu alalu réew mi wala wala jëluñu alalu réew mi mais je ne pense mhm. que ba pare mhm. beneen affaire bu am solo mooy man sama problème bi gën a mag c'est même pas peine bu ñu tëj nit bi mu tëdd ko li gën a garaaw mooy que nit ñi nga xam ne dañ leen jox benn poste ministériel wala de directeur général fenn nga luubal xaalis xam nga man lan laa gën a tiit. ana koppar yi non non non yan am ëllëg la joxee suñu réew lan ngay def. <laughs> non euh, moi je ne suis plus. waaw attends oui mais attends vas-y vas pense que. Mhm. Euh, CREI yi àtte nit haute cour justice àtte nit li am solo ay juge fay toog di àtte juge bay xool ndax def nga wala defoo problème bi nekkul foofu. Mhm. je pense que Karim Wade Sénégal comme beneen Sénégalais. suñ ko jugee jàpp ko dañ ko war a jàpp mais man lan may sans aussi justice aussi buñ bëggee ñu respecté leen fekk aussi justice dañ ko war a respecté mais moom mooy taxaw taxawaay bu ñu ko respecté parce que man gis naa ñaar nit yu ñëw ci makki sal jóge PDS justice blanchir leen man posé na ma problème ñu blanchir leen waaw bien sûr waaw ah, ah waaw loolu loolu man posé na ma problème ci réew mi donc yaa ngi wax yaa ngi wax làkk doom dóor doom voilà loolu loolu vraiment kuy sénégal sénégalais am bon sens ah, dina la dina la dina la gêner parce que Macky Sall bu ñu ko falee mu njëkk suñu réew mm-hmm. Mm-hmm. ñu yaakaar ko aussi tax ñu teg ko fi warul te moom moo waxoon ni ku ñëw ci may duma làq kenn bu waxee loolu bañ gëm ko ci moom ñu gis muy làq ñoo xam ni parce que dañoo ñëw ci moom ci veille élection xam ñooñu dëkk ak ñooñu dafay nekk lu lu am day day day justice aussi day day tax ñu jàpp leen. non bu dee justice moo atte. kon dafa jàpp ne dafa ñu wax la. justice bi jàpp ne Karim moo def moo jàpp ne dafa ñu sëñ bi dund wax la. réew mi ñoo ko bokk comme ni ko boobu waxee. Mm-hmm. ku sàcc suñu alal dañ laa war a tëj. nga fay ñu suñu xaalis. Mm-hmm. Macky Sall moomul Sénégal APR moomul Sénégal Parti socialiste moomul Sénégal PDS moomul réew mi ñoom ñoo opté nekk ay policiers di ñu jiite. Mhm. su ñu la jàppee da nga war a ñëw delloo suñu xaay walla ñu tëj la. Mhm. mais nag aussi man duma mën a nangu étant sénégalais libre. Mhm. que Macky saal di bàyyi waa ñi tafu ci moom. bëgg a lim waa PDS aussi benn par benn. di leen tëj mais loolu la commencé. Ah. non non non attends non bu bu ko parce que man damay la ñaar ñu blanchir man def na problème dégg naa policier di tudd seen tur mais dinañ tudd seen tur dégg naa Awa Awa Diop Awa Diop. Rufisque Awa Ah, ah. oh, ah, de Rufisque tuddum aw bàyyil ah non damay laajte rek Awa Diop de Rufisque baa gis muy tudd seen tur a raison elle a parfaitement raison donc je pense que ne tuddul dama yaakaar ni nañu jàpp waa PDS yi jëloon mhm. mais ñañ war a njëkk a jàpp sax mooy traître yi bokkoon ci parti am fa teraanga am fa lu nekk. xëy na non non du ñu nitu gor. parce que ànd ak Ablaye Wade muy jël alal nga ngay lekk ñu lay bàyyi ngay naan ñu lay bàyyi ba mu métti nga ni wëqat daw loolu dañ ko war a tëj ci réew mi loolu gën a bon loolu gën mu wax vraiment man dama ci ànd ak moom. ndax euh, tey jii boo xoolee ci ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall am nañu ci bari ñoo xam ni PDS lañ nekkoon soxla ñu fi tudd ay tur ndax ay kilifa ñu ngi toog seen kër dañuy setaan dégg nga ñooñu aussi tey jii amatuñu benn jàqare ndax laqatu nañ foofu quand même ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ leen du temps ngi temps yi fii douze ans yi Ablaye Wade nekk yëpp gis nañ leen li ñu doon doxalee gis nañ ay cour des comptes gis nañ ay ay IG gis nañ ay ay ñu leen defar ay rapport teg si rapport yi président teg tànkam la bokk teg ci la bokk ñii naan ñu ne non non benn ministre bi fi jàppante muy jaay ay kuddu lu mat fanweeri euh, trente mille trente cinq mille francs xam nga lu ñu mujj wax ñu ne non waa ji nekkoon ci kii bi ah, comptable am bi moom moo moom moo bàyyi loolu mu jàll xam nga loolu waxi kasaaw kasaaw la daf ci am yoo xam ni Sénégal mënu fi nekk ñun li ñu ci mbir mi man nee naa bu ñu jaarale woon ay mbiram ci biir contrôle yi ñu war a jaar hmm. amaana duñ ñu teg sax ëpp loolu ndax xëy na ministère yi mu yor. Mhm. boo ku ko yor la nga cay. jëfandikoo dina doy mais. Mhm. jàpp nit singali ko rek nag mhm. sama waay singali ko yow rek la yow rek la. loolu Charles Charles brandi sa carte d'identité waaw je waaw parce que xam nga euh, dëgg lañ koy wax. carte d'identité bi. moom euh, s'il te la photo. waaw bul wal photo bi <laughs> parce que 2016 <laughs> boobu. elle est biométrique. numérisée. elle a coûté une fortune. man damay voyager parfois damay ñëw aéroport rek joxe carte d'identité bi xam nga boo joxe sa passeport dañ koy nii nii jàllal carte d'identité bi police bi da koy bind à la main voici l'une des mascarades absolument de ce pays la et c'est au ministère de l'intérieur que dama ne mais qui date de quel régime qui date de quand du régime de Wade kii kay mu exp ma defaraat beneen dama bëgg wax benn affaire mooy que jeune ne suis plus sur le registre créé ay affaire bu ñu fa toogee. on mm. perd temps fou. oui c'est-à-dire dafa euh, waxtu dafa jot. oui nit ak kóor yu ñu yor fi gis nga PSE bi ñuy wax cinq mille milliards xaw ma six mille milliards. oui ñu nar a toog di avancer xaalis boobu di ñëw. Hmm. parce que dette rek la du dara du dul endettement. Hmm. du dara lu dul endettement. Hmm. ministre yi mu am ñu ko war a jël am lu ko war a def jalgati. mën a xaar ay wala su doom yi di xaar nar a fay ñu dem ñu ne ñu ay CREI dans douze ans wala dans sept ans quand le président loolu moo fi moo waratul am tey ce sont les dama la ne américain le juge de contrôle qui sont là mais munoo nekk mais attends munoo nekk contribuable américain munoo nekk contribuable français mm. say dëkkat nga taxaw mm. di financer le développement mooy les partenaires au développement mm. du Sénégal par des emprunts par des choses comme ça nga toog dans un journal nga jóg toog xool y' a ministre qui a détourné six cent milliards cent et quelques milliards. très bien man ah, dinaa ah, taxaw Sarr man koy weesoo yow bu ñu la dëkkoon IG jamonoy Ablaye Wade. de toi à moi. ba démissionné est que ñeme woon ngaa ñeme woon ngaa taxaw di wokkat mais Karim Wade damay très franchement très franchement Birima très franchement li ngay wax nii. Ah? Birima li ngay wax nii. lenn rek lay firndeel. mooy sénégalais yi ñu toog di ñuy seetaan. qu'ils ont fini euh, par prendre conscience. waaw ils ont fini de prendre conscience. waaw que de toute manière ku ñu fi dénk suñu réew. ku ñu fi dénk suñu alal ku ñu fi dénk suñu yëf. dafa am leneen loo ciy xool lu dul njariñu askan wi c'est ça que tu es en train de dire. absolument non mais mais loo indi lii. bu ñu ne bu doon ñëpp ñëpp kon duñu teg nànk di ko amoon cent trente huit milliards. Ah bon bu doon vraiment non mais yow loolu wax yow daanu ngay wax mais yaa ma position. dix huit mille milliards ça veut dire il faut est-ce que les Sénégalais. dama ne non attends dama ne. alors bu ñu doon xool bu ñu doon xool askanu wuy ma est-ce que xam nga amaan yi amaan yëpp jege na sept cent milliards. waay bu ñu doon xool alalu askan wi di jiital Sénégal. mais dinañ mën a ay Sénégalais ay Sénégal pays pauvre nga mën a amaan ay Sénégalais sept cent milliards. non xam nga ni sept cent milliards. waay mais est-ce que même waaw est-ce que tu. ma daal mooy mooy 700 milliards mooy li douane sénégalaise yëpp di jël par année. waaw loolu daal recette douanière waaw recette douanière mooy à peu près may wax daal mooy. ci li ma jàpp man ci gàttal. mooy que CREI yi ci suñ fi ñu jaar ñun nécessité historique la woon. xëy na xëy na. léegi nag buñ ca jógee le rôle de l'état ñi ko ŋànk fi mu nekk nii ñu fexe ba ñuy bañ a amati ay juridiction d'exception pour contrôler rek la li mais historiquement fi ñu jaar nii nga tuddee ko CREI nga tuddee ko xawma Masamba Mademba c'était une nécessité historique parce que amoon na lu fës ci réew mi li ngeen dox mënu am ci réew mi dama dama li ngeen dox mënu am ci ay UGE yi ngeen dox yëpp ah, ah oui dama maa lay wax ne la ku ñu fi topp dafay neex président ba nekk en exercice. déedéet déedéet man maa lay wax lii c'est grave mais tant que ñu ngi foofu mais en même temps en même temps c'est intéressant c'est grave mais c'est intéressant ce qu'il dit mais ñu dégloo ñoo ñu dégloo ñu dégloo président de l'Assemblée nationale waaw pencum askan wa nga xam ne ñoo réew mi moo leen fa par par vote <laughs> il a raison ñu taxaw ne kaay ñu xool la rek. en fait en fait en fait kaay ñu xool xool la les mêmes députés. oui taxaw ci biir hémicycle di fecc. naan député Abdoulaye Wade lañ koy dàq di toroxal seen numéro 2 di ko. waaye kenn fi toroxal sa bopp ay bopp la yow

loolu mooy dëgg c'est-à-dire que pendant que tu es là moo tax moo tax au ma ne la nit ñi seen bopp mm-hmm. il faut ñu am jàngat xam nga bu amee coow il faut ça. pas qu'on émotionnel xam nga lan la man dama bëgg sénégalais bu nekk ah mu xool situation bi am mm-hmm. mu jàngat si mu juger affaire bi xalifa ah, ah, Charles Charles déglu ko non dama ne di nga li xew nii mm-hmm. sénégalais bu nekk il faut ñu am recul il faut ñu bañ a dem ak euphorie nga toog ci jàngat nga ne un plus un égale deux sama réew mii maa am diw teg nañ ko fi jël na lii lan moo ko ci fekk xam nga lan moo gën a grave mm, mm, mm. aujourd'hui ñi jël luubat xaal xaalisu réew mi ñu jël leen tëj leen deux jours après on commence à parler de leur libération xam nga loolu mooy lan gis bu dee da jël dara déglu leen ma damay eggli de déglu bu dee da jël dara déglu ma mu óor la ni même boo ko jëlee amaana doo def un an ci dala du la fekk mais loolu ça n'encourage pas ah, ça du décourager keneen kii ñëw parce que dana ne même su ma jëlee su ma duggee ci ci nangu seen te xoola loolu moo fi war a dañ donc xam nga Birima li mu wax dafa grave te li mu wax li tax man mu metti ma mhm. dafa am ñetti homme politique français yu wax li mu wax mu ah, naqari ñëpp waxee dëgg de. waaw Sarkozy mu wax li ñu wax. ñun ñu taxaw xeex ko. intellectuel ci àddina yëpp xeex ko birima tey bëgg ko dëggal. Hmm. Jacques Chirac moo fi njëkk ne. Hmm. Euh, que Afrique démocratie bi ma l' Afrique n' est pas encore pour la démocratie maanaam Afrique waraguñ jot ci démocratie. Hmm. Sarkozy ne. la l' Afrique n' est pas encore entrée dans l'histoire maanaam Afrique fa suñu maamee ne woon ci kaw garab yi di dàqante golo yi ñun fa lañ nekk ba léegi. loolu la Sarkozy wax ñëpp xeex ko. Jean-Marie Le Pen ne nit ku ñuul boo gisee boo jàppee nit ku ñuul nit ku ñuul moo gën a suufee ci li xeet yi xeet yi am ci àddina hmm. loolu li kiy wax léegi te loolu dafa nekk lu grave. ah non non non non non non waxul loolu. mais laisse finir. doo day doo jàkkaarloo Sénégal non non non. déedéet waxul dara jàkkaarloo Sénégal wax lu grave. li ma wax dafa leer non du ma bàyyi mu ne. laisse-moi reprécise ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est très grave. c'est très grave moi je suis un noir africain dama ci fier. jàpp naa ne maa gën tubaab yi ci yëpp ndax damaa gën yàlla gëm yonent bi gëm Sëriñ Tuubaa ma seen naw la sax waaw baax na may mel non may megal may wax la dama non waaw dama wax ni j'ai pas terminé non mais li wax daa grave tout sama tur non c'est grave waaw wax ni te li may wax amul IGE amul cour des comptes ku sax xel xalaat dem di seeti Karim Wade doomam di ko jàpp naan da koy da koy kenn ñëwee ko ci loolu nag c'est très loolu moo ba na ci Macky Sall moo nekk ci Macky Sall mii tey moo nekk moo nekk leer na mais j'ai pas dit non j'ai pas dit nit ku ñuul ak ay le fen non a daanele mooy leen rek mooy xam loolu boo ko waxee IG amu fi waaw Macky mooy def lu ko neex waxuma loolu de kenn mënul fexe mu jàpp nit institution bu fi taxaw IGE du la déglu donc loolu nga fi wax mais loolu mooy dëgg loolu mooy république amul république bu amul lan moo am monarchie moo am mais bu dee loolu mooy république terminer ce qu'il a dit c'est la vérité il faut qu'il termine d'abord hmm. mooy buur di moom lu ko neex lay def loolu mooy ñun démocratie ñoraguñ ci démocratie moom la Sarkozy wax moom la Chirac wax mais te ñun bu ñu ñorul ci démocratie démocratie nekk une valeur universelle maanaam addina bépp tënku ci démocratie loolu mooy nit ku ñuul dafa dellu ginnaaw mm. cest à li nga wax xëy na waxloo ko directement mais boo ko boo ci tiré ay conclusion foofu ngay arrivé mm. foofu ngay agsi euh, ah, dañu war jàll si deuxième question mais déjà non mais on va finir avec Papy si point bi balaa ñu jàll si dernière question bi waaw man je vais pas être long damay wax rek euh, ñu wax ce que les gens ont oublié ñun nekk au Sénégal. Mhm. parce que maintenant ce sont les les gens qui détiennent le pouvoir qui sont les militants du peuple. si su ma arrêté aussi kaw Macky Macky a son son son son mandat da koy def tranquillement c'est sûr du am coup d'état du am dara il va faire son mandat. Mm. mais Macky Sall ne doit pas oublier que c'est pas le plus grand politicien de ce pays. Mhm. Euh, amul trajectoire boo xamante ne amul des hommes politiques qui l'ont eu. et il doit comprendre mm. lan moo tax sénégalais yi fal ko dafa bokk ci lii parce que dafa am lu Macky incarné déjà la politesse qui correspond à nos valeurs dafa yaru quand même mm-hmm. c'est un gars président bu correct la dafa yaru xam dafa sedd euh, euh, waaw je me suis trompé président voilà <laughs> <laughs> j'ai du respect pour lui euh, mu incarné injustice da koy xeex mm. mais loolu moo jur yëpp sénégalais yi ànd ak moom mm-hmm. mais sénégalais léegi dañu toll si benn niveau boo xamante ne xam nga le bruit la presse qui le bruit Mm. mais gisoo benn parti bu am trois cent mille personnes yu war a mun a voter amul ce sont nous qui votons ñun ñooy voter donc si un président n'a pas euh, la leçon hein, le ce message codé mais tu peux faire tout ce que tu veux dans la seule garantie que tu as au Sénégal Merci. Mm. entre guillemets c'est que tu vas exercer ton mandat ba mu jeex mais le jour ji si Macky ne ne répond pas aux, aux préoccupations li bokk fondamentalement li tax ñu fal ko mm. mais le peuple appréciera encore. sans mu nekk sur les bases des meetings. Mm. ay affaire coloration politique. gars yi dañuy xëyaat suba teel comme ni ma waxee woon fii kaw dañuy xëy lundi dem liggéey. dañuy xëyaat suba teel. Mm. jël seen carte. dem il t'enlève de façon. très rapide en six heures de temps nga jóge ci pouvoir donc man man foofu laa bëgg ñu taxaw euh, euh, pour compléter pour mm. créer yi man gëmuma euh, li li grand wax trop parce que lan moo tax dama gis ay techniciens du ne dañ ko war a defaraat hmm. a pas de perfection dans la vie nañu xoolaat na la war a mun a nekk en conformité avec ce que nous nous avons besoin hmm. hmm. te que ñu avancer mais njuuj njaaj sàcc lekk euh, <laughs> loo moomul très bien euh, si loo xam ñëpp a ko bokk donc on est obligé de jàll si second point bi dafa am aussi euh, leneen loo xamante ne mu ngi découlé ci li xew nii wala boog xëy na boobat na nga ni ñu ngi koy wax muy candidature bu Karim Wade à la présidentielle de 2017 ne moom mooy candidat parti démocratique sénégalais ñu daal di koy investir trois jours après wala deux jours après ñu daal di koy condamné déjà ban lecture nga am si loolu est-ce que c'est une démarche purement politique politicienne wala xëy na mbir la moo xamante ne da jéem a jouer un peu on se joue un peu de la justice. bon Ablaye bi mu fii ne day def candidature Macky Sall man bind naa ak wax ci seen rajo bi d'ailleurs. Mm-hmm. ne euh, Ablaye Wade dafay def marketing politique maanaam. wax na ay tooxi doone yu metti ci kaw teg ko ci kaw Macky Sall mm. seet nu mu ko mën a fare muure ko mu indi loolu loolu dem ba jur lii tey c'est vrai que Abdoulaye Wade mësul jóg ci bëgg a teg Macky Sall euh, te bëgg a teg Karim Wade mm. Mm, bëgg na ko fi yóbbu ci mairie Dakar Karim Wade mairie bureau de vote ba mu voté dañ ko fa gagné waaw dégg nga mu bëgg ko fi teg ay ay vice président assemblée nationale pour nekk président loolu amul mu indiwaat tey affaire wu ne mooy nekk candidat PDS xam nañ loolu mënul nekk ndax Karim de tëj yi ñu ko tëj euh, kenn amul kenn kuñ koy tëj koo xam ne kii di nga mën a nekkaat électeur gis naa ko ci seen journal bi tey observateur mm. te loolu aussi euh, ñi nga xam ne waxtaan naa ak ñoom ci wàllu ñu seen ñu xarañ ci wàllu yoon aussi xam nañu ne code électoral bi bu ñu la tëjee six six mois de prison ferme boo ko amee dootoo mën a nekk candidat. kooku kooku moom bu fekkee ne da koy da koy gracier kooku moom. Euh, pas grâce mais amnistie. bu ñu ko moom kooku Macky Sall mooy seen. wala ñu yóbbu ko assemblée voté loi d' amnistie ñu mm. voté ko mu dem. Mm. Mm. mais bu ñu ko bàyyee ci nii mu nekkee nii. ak Karim Wade mënta nekk candidat. seen seen waa ji spécialiste wax na ko ci seen journal bi tey jii te loolu dëgg la aussi ndax. képp kuy jàng ci mbir yoon di nga ko xam. même bu fekkee ne tey jii liñ ko teg ci yoon ci wàllu xaalis muy cent trente huit milliards war na ko mën a fay bu fekkee ne mënu ko fay dañ koy def contrainte par corps maanaam dañ ko naan lii moo dem campagne di day def di def di def di di dépenser ay milliards. Hmm. amel nguur gi xaalis. Hmm. kon nag lii nga yor fey ko ba pare balaa ngay dem campagne. mais mais amul amul nationalité exclusive. Euh, sénégalaise donc non mais de toute façon loolu na renoncer ci benn nationalité dem gis nañ fi ko fi ñam-ñam mm. benn togolais bu nekkoon mm. dem nekk euh, kii euh, candidat Togo mm. après bu euh, ah, ñëwee mu jëlaat nationalité am loolu du problème problème bi mooy lii mu amee ci xaalis Sénégal donte ñu ngi ko koy toppee bés bu fi yëngalee ne dafay nekk candidat nguur gi dina ko ne fay ñu suñu xaalis bu ko fayal gars yi jël ko ràpp ci kaso bi donc man pour man Abdoulaye Wade dafa nax waa PDS te lii muy def aussi ci moom lay wëlbatiku ndax parti bu toll ni PDS nga dem ba 2017 mënoo am benn candidat day indi parti da ngeen Souleymane Ndéné Ndiaye li mu wax Souleymane Ndéné Ndiaye moom ñu dàq ko ñu bañ ko dàq yëpp moom day dem nekk candidat hmm. te xam nañu ni Fada ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ku ci nekk am nga hmm. am nga mébétu nekk hmm. président de la république wala nga nekk candidat xam ngeen ngeen baalu li ñu dese bariwul donc dañu tënk rek ku si nekk en une minute nga wax si aspect boobu noonu s'il euh, man pour man euh, dafa xaw nekk sax nouveauté parce que bu ñu investir un à la à une présidentielle dafa war a am dafa am ay charte quoi dafa am nu mu demee euh, boo gisee argumentaire bi Souleymane Ndéné si moom lay appuyer parce que c'est une voix autorisée au sein du du mais lu mu wax sax na fédération yi sax pare wuñu sax pour am une représentativité pour mu nekk un un congrès euh, ñu à à l'issue duquel ñu on va choisir le candidat ça n'a pas été le cas bureau politique la bon moi je crois que c'est circonstanciel c'était un prolongement du combat de façon stratégique que dans la conscience des gens qu'on dise que nous avons un candidat encore que bu Karim libron tey euh, je ne pense pas qu'il la légitimité par rapport au cursus des uns et des autres mm-hmm. la démonstration est faite par par Souleymane Ndéné Ndiaye donc euh, beneen combat mais comme léegi ñoom ñu ngi ci affaire prison bi xëy moo tax la coow bi xaw a xawula jóg mm-hmm. mais par extraordinaire si Karim sortait aujourd'hui <laughs> mais c'est pas Karim facilement qui va être le, candidat du PDS non c'est c'est purement ouais, politique je pense waaw non man euh, li ma tabax na réussir na tabax parti bu mag mais malheureusement dina réussir aussi pour daaneel parti bu mag parce que nag aussi ay nit topp la di ay xale àndayu di xeex nga ne man rek maa valable wala sama doom mooy valable yéen ñëpp di ngeen valable mais parti bu bu Modou Diagne Fada nekk nekk fa responsable jeune di màgg di ñafe di gañe ay dëkkam jiite fa jeunesse bi du am benn orage ci réew mi buñ tëjee sa doom jëlal benn xale ci la war yaa Modou jaañ Fada yaa laa daam laa comment ça s'appelle Aïda Mbodj yaa Souleymane Ndéné yaa d'autres ñoo xam ne ñooñu sax am nañ courage ne bëgg nañ mais ñeen ñoom mais kon daal PDS ña fa nekk ñëpp toppeere la ñu war a doon et man gëm naa daal ndeem Ablaye Wade moo yéenewul Idrissa Seck mu jiite PDS ak li ko Idrissa Seck defal yëpp góob mu yéene keneen mu jiite PDS très bien très bien ah man man man hmm. xamu man en fait man ñaari jàngat vite fait rek laa si hmm. benn jàngat bu njëkk bi mooy en tant que sénégalais. man dama jusqu'à preuve du contraire. Mm. am naa confiance ci justice sama dëkk. Mm. sama justice dëkk su jëlee nit mu denc ko parce que dafa luubal xaalis. Mm. te ma gëm kii bi kooku nanguwuma ëllëg muy prétendre jiite réew mi. loolu moom mooy bu njëkk bi. beneen bi li ko yàgg naa ko wax depuis eh, eh, eh, débat yu njëkk yi ma ne leen nit boo buggee réew nit da ngay am ambition. pourquoi ils ont attendu. à un an xaw ma un an et quelques des élections pour ñu manifester wu dès le premier jour la ñu waroon bi Ablaye Wade bu ñu leen wóoree ni paa bi dootu présenté wu. Mm-hmm. si la ñu boo bëggee président ñun bëgguñu président buy buy toppee dañu bëgg président buy jiite bu am ambition bu am fit. Mm-hmm. pourquoi ñu xaar ba léegi pour bàyyi auto xaar autorisation. Mm-hmm. pourquoi dès 2012 passé ñoom positionné wuñu en tant que leader man bugguma jël président boo xam ne da ngay xaar paa bi nakal la. il faut être ambitieux parce que ëllëg boo jiitee suñu réew mais tu vas pas être euh, <laughs> président dafa am solo da ngay am da ngay am da ngay am fit da ngay am da ngay anticiper da ngay da ngay bëgg a dem da ngay bëgg a jiite oui très bien professeur waaw dama jàpp ne rek li ñu wax mooy ama hmm. politisation excessive la rek de la vie nationale hmm. parce que fi ñu toll nii dama yaakaarul ne <laughs> hmm. waaw dama yaakaar ne vraiment est-ce que réew mi priorité bi mooy fol ay ay xaw ma ay candidats yu war a dem yan élection il y un temps vraiment pour euh, ñu lijjanti mbiru élection mm. parce que il faut que mu am ñu jiite il y un temps pour qu'on se mette au travail bàyyi caaxaan bi bàyyi petaxal bi bàyyi naxante bi le Sénégal a d'autres priorités très bien ah comme buubal moo wax rek le Sénégal da nga koy mérité da nga mm. koy mérité pour gagner ko mm. mais bon Abdoulaye Wade réinvente euh, l'idéologie euh, libérale ah ça veut dire c'est du concret génération du concret <coughs> à la tête du PDS alors trois ans trois ans Macky Sall jiite réewum Sénégal lan la fi def lan la fi deful lan lañ mën a xaar ci moom ñu teewlu ko. waaw ñetti at yi ma gis nii kii buñ ko bàyyi dana liggéey man ne li ma gis doy na ma te ku képp ku fi toog def ni moom dina liggéey mais ñetti at kenn nu cee liggéey loolu man de wax dëgg yàlla comprendre naa ko yaa ngi dégg 12 ans am na ñu ko fi def am na ñu fi def lépp loolu te li mu fi liggéey liggéeyuñ ko fi. avancement amul parce que ba toog dafa waxoon ay wax leer. te li mu waxoon yëpp gisuñu si dara waaw loolu man loolu laa si xam. man bilan zéro laa koy jox Macky Sall daa gën dëkk bi foo laal mu ngi miti ci soxoor yi ci population bi lépp koy wax mu ngi jooy kon Macky Sall gisuñu lu muy liggéeyagul quoi. route yi gis naa ci yu bëre yoo xam ne àggul woon bi ma fiy jógee mët na at mais bi ma dellu see gis naa ni àgg na ci route yu bëri côté Pikine yeeg yooyu daal route yu bëri gis naa vraiment àgg na. ak euh, ci li may dégg tam ci kii bi nuñ koy woowee sax ci plan émergence la xaw ma waa ci affaire santé bi gisaguma ko nag mais maa ngi dégg ñuy wax ak affaire bourse yi bourse sociale yi ak euh, affaire ak lana ti saxati ak affaire luwaay yi wàññi luwaay yi ak genre yooyu daal te sotti que pour man trois ans yi mu fi def quand am na un peu lu mu fi def loo xam ni dégg nga leen ci askan wi li ñu wax euh, bon benn tour de table la ñu def euh, ku nekk euh, wax li nga xamante ne ni yaakaar nga ni moom la fi def ak li mu fi deful ak xëy na li ñuy njort ci li ñëwagul. waaw man fu may taxaw avant may ñëw foofu damay wax benn affaire boo xam ne daf ma daf ma xaw a ça m'a un peu marqué ci trois ans Macky yi. Mm. lu tax dama daf tuuti observation ak ailleurs en mm. dehors du Sénégal parce que dafa am benn jour ma ma liir benn livre. bu ñuy bu benn journaliste française bind Catherine Nay hmm. euh, elle parlait des sept Mitterrand les sept Mitterrand loolu mooy titre livre bi hmm. les sept Mitterrand muy wax les balbutiements d'un nouveau régime boo xamante ne euh, tu tu comprends pas trop tu n'as pas les arcanes du pouvoir da ngay réer tu prends des mauvaises décisions tu reviens xam nga tey bu ñu jëlee kaw Mitterrand moo jël déjà le record avec ses deux septennats 14 ans de pouvoir en France il fait partie des meilleurs présidents même le 21e président hmm. mais si ay début am entre guillemets ay njombe rek la doon def <laughs> ay njombe pour euh, pour ñu comprendre. Euh, il a fallu après mu door a prendre le euh, le train en main après mu comprendre encore. Mm. doog a def ce qu'il a ce qu'il a fait. yi boo xoolee nga avant Macky un peu. tu viens mm. avec Wade au premières heures de du pouvoir. Mm. ba at bi kii premier année bi. dañuy gis <coughs> l'époque c'était le parti socialiste qui était euh, le plus grand parti au, au dans l'opposition mm-hmm. mais boo dégloon argumentaire socialiste yi xam na ñuy wax non Ablaye Wade ñi ay cuune la ñu xamuñu état xamuñu parce que boobu il était dans cette logique de balbutiement de de, de l'entame du pouvoir mm -hmm. mais avec Macky moom loolu moom mooy jaaxal bariwul trop les balbutiements c'est lié à son parcours wala man loolu daf ma frappé les grands présidents du monde ont eu ce problème mais Macky dafa échapper pour l'instant. C'est extraordinaire je le dis de façon très sincère. Sur la base des comparaisons que j'ai faites avec Mitterrand qui est une mm. référence mondiale en termes de magistrature ouais, très euh, man en je suis partagé parce que su ma nekkee sénégalais mooy je sais que dëkk bi. Mm. metti na y a énormément de problème dëkk bi xaalis amu fi pour wax dëgg euh, effectivement yu ñu posé woon euh, man dama nekk nit boo xam ne dama xalaat ni suñu réew yi pour que mun a avancer il faut ñu ñu song jikko yi ak façon de faire yi moo ñu indiwaat sax ci li ñu doon wax parce que li ñuy gën a ne suñu suñu def suñu développement ak yooyu ci la bokk suñu yoon ñu koy gën a fat hmm. parce que tout simplement dañu am benn problème de comportement boo xam ne li professeur bi wax sànq que ni Euh, tubaab bi ñëw nañ fi wax euh, euh, Sarkozy saaga nañu war def dara xam nga nit dina wax benn affaire mu choqué la mais nga dégg ko ci li mm. li Sarkozy wax li keneen wax peut-être am na ci yenn côté yoo xam ne am na dëgg parce que c'est pas que tubaab rek moo lay wax dara nga ne nga ne tubaab la dafa li mu bu la nit waxee dara danga nga ciy am jàngat mm. loolu am na solo donc la ca ginnaaw wax ji voilà la ca ginnaaw wax ji dëkk ji dëkk bi kenn mënul ne dëkk bi neex na mm. dëkk bi naxariwul it naxariwul waaw mais non non non non xalifa non non munoo ma bàyyi bàyyi ma wax. dama ne dëkk bi kenn mënul ne dëkk bi neex na ñu ngi yaataa yumbe économiquement c'est quand même très difficile il des actes qui ont été posés euh, je me réjouis de xam nga problème sénégalais bi ma doon njëkk mais courant sax mënuñu ko régler je pense que tane na par rapport ak li ñu fi dund mm. quand même xam nga il des actes am na beaucoup plus de impunité bi wàññeeku nag ci était un très très grand problème au Sénégal fu mu ne nii kenn mënu fi def loo xam ne euh, ah, neexul nit yi mais aussi il faut comprendre si li euh, li Papis doon wax pour revenir si président Macky Sall dafa am chance pour pour bañ def erreur parce que moom laa doon y' a beaucoup de pression que population yi di def ci président yi maintenant que la fa nekkoon nekkul mm. mais euh, wax fa dëgg yàlla y' des actes qui ont été posés mais économiquement quand même ça traîne très bien Birima waaw man <clears throat> jàpp naa ni bilan yi gën ci bilan yi la Macky Sall def ci ñetti at yi. c'est euh, la mooy seen élément de comparaison bi gën ci bilan yi nga wax donc la mooy seen élément de comparaison. <laughs> bàyyi ma yaa ma jàppal bàyyi ma eggale. si si mais mais les éléments de comparaison bàyyi ma eggale bu ñu da nga may jox par ma wax benn nga te yuuxu ma bàyyi ma eggale may <laughs> man mi jël sans parole commencé wax naa ko <laughs> décorté. baax na bisimilah du dëgg bisimilah. Macky Sall. bilan bu baax la def lu leer parce que Macky lan la diggoon Sénégalais yi tey te amul début de solution man limal la. limal Macky Sall ba mu nekkee président ak léegi benn denrée amul dara lu yokk ci réew mi dara yokkul loo xam ne officiel dañoo génne comme naan def yokk nañ nàngam comme xam nga Sénégal xam ngeen ni at yi ñu génn musoo toog ñetti weer. yoo taal loo lirul journal wala nga taal télé ñu la yokk nañ essence yokk nañu ceeb yokk nañu diwlin yokk nañu gaz yokk nañu nangam loolu nañu waxante dëgg yàlla Sénégal may xool mu soo toog ñetti weer yoo ko déglu la ñeenti weer amul ba fi Macky Sall nekkee ba léegi yokkul benn prix beneen bi nga ñëw mu wàññi loyer yi ñun ñi am ay kër di ko luye xam nañ ni wàññi na ci lu bari nga ñëwaat mu indi ay bourse sociale man ñu ñu dëkk ci kaw gi nga xam ne di nga nekk ak sa nijaay wala sa maam boo xam ne toog un an du bu sa téye cent mille moo boppam lu leer laa lay wax man villageois la ñu indi bourse sociale yi di dimbali ay baykat man xam nañ hmm. li muy li muy li li muy def may ma rek may gële hmm. jë prix bi ñuy jëndee gerte gi tey ci Sénégal dafa défier concurrence yi mu am ci prix yëpp au Sénégal. waaye campagne bi jagut waaw may ma may gën la waaw may ma dama hmm. dama ne naa la défaut yi wax la fi fi baax ak fi ma jàpp ni moo des. Hmm. nga ñëw ci affaire enseignement supérieur bi ma bokk. mille de 1960 à nos jours en 2015. musuñu tenir au Sénégal conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur ñu génne cent trente milliards teg ci table ji budget national pour def ko ci enseignement supérieur. musuñu fay lakk loi également. dama ni waa de dama ni waaye sëñ bi xaw xam nga. am ne ngay tim booy nga jël parole wax. Ah, dama jël parole soo nga wax. def ci ah, nga pare. Hmm. nga def dans les hôpitaux ñiy def jëli ci Sénégal yëpp. c'est day day doo fay dara. xale boo xam de zéro à cinq ans boo nee hôpital. six ans doo fay doo fay dara bu ñu nee césarienne doo fay doo doo doo doo fay dara nga gis les financements yi nga xam ni dëkk boo dem ci Sénégal comité boo dem ci Sénégal ñi ngi leen di financer aujourd'hui pour jigéen ñi mën a am liggéey mën a am mën a am euh, lu ñu mën a lu ñu mën a defal seen seen bopp nga ñëw ci njàng mi njàng mu mu kawe bi bi wax njàng mu kawe bi tey ñaata créé nañ. université virtuelle du Sénégal créé nañ ay ISEP ci Sénégal parce que li desoon Sénégal mooy da ngay jàngal nit rek muy dem di nekk am maîtrise am day yaatu du am lu mu liggéey. ñu mm. ñu ñu ñu professionnaliser euh, njàng mi. nga dem ci wàllu euh, kii nu moti euh, ndaw yi on a créé yaa gis kii bi Dieng yor sa il s'appelle ANEJ commencé na mettre les kii bi pour financer le les jeunes nga dem ci wàllu côté boo dem. am na acte bu fa Macky Sall posé mais bu ngeen fàttali Sénégal gi Macky Sall yor. mais sëñ bi du Sénégal du réew mu am pétrole. du réew mu am essence. nga dem ci autosuffisance en riz bi danga ceeb bi. demal ci vallée bi man université Gaston Berger ngi may dégg. réew vallée bi la ñuy lekk. très bien tout le monde man man ma eggale. mais Birima c'est que temps de parole tamit dañ koy gérer non mais tu vas pas parler pendant 30 minutes. déclaration de politique générale. non non non mais Birima franchement. donc donc Macky Sall. a fait un très bon bilan. ok lan nga jàpp ci li nga xam ne maintenant lan mooy problème mu Macky Sall. waaw mooy malheureusement pour lui. waaw li muy def amul nit ñu ko mën a fësal ci réew mi. pour que Sénégal mën ko capter xam ko. son service de communication baaxul incompétent incompétent baaxul. la communication de Macky Sall. mooy baaxul. vraiment ñi ni ñu war a feeñale ay liggéeyam baaxul. deuxièmement ay nitam xaw ma dañ ko gëmul xaw ma dañoo nanguwul euh, fës mais en ku ciy wax daal da ngay bàyyi gis réserve bi mais amuñu fitu. raak comme ni koy waxee quoi politicien day fit di raak mais <laughs> ñoo mooy seen loolu mooy seen problème. mais bilan wu Macky Sall boo doon wër Sénégal te li ma lay wax tey. Euh, nit ñaa ngi yuuxu rek c'est ñeneen ñi dañoo dàq wax ëpp fit jege média yi loolu moo fi nekk. Hmm. mais en réalité Sénégal bu ñu mere boo demee États-Unis d'Amérique bi gën a riche. le cloche le non le chômeur. non non ki ne ci mbedd mi. li ngay wax Sénégal yi ngay wax pàcc pàcc amul lu mu lekk. waaw waaw très bien ne gërëmul état bi ba keroog at day tukki. waaw ba keroog Sénégal di fay. waaw. du am état maintenant nag li ma dakku waaw li ma dakku ci trois ans li ma dakku ci trois ans mu metti ma trop waaw te may ñaan Macky Sall mu rectifier loolu mooy jeunes yi dëkk Colobane dëkk ci réew mi am nga ñu bëggoon a imposer réew mi réew Sénégal xale yi jóg bañandoo ko policiers yi rey ay nit ku dëkk kii dëkk Mbour comment il s'appelle Mamadou Diop hmm. policiers yi rey ko devant tous les Sénégalais ñu rey ak policier ñu def fekk ay xale Colobane tëj leen vingt ans bàyyi policiers yi reen civil yi loolu moom metti na ma ci trois ans Macky Sall te maa ñaan Macky Sall bu rectifier ce tir parce que du lu baax parce que day tax ëllëg bu ñu xeex bu ñu bu président ñëw fi teg leen loo xam ne ànd ak seen wi loolu metti na ma a jafe sax parce que déjà faire le bilan de ci tënk bu gàtt nii. oui les points wax rek ne. Hmm. quelques points saillants. Hmm. au niveau des intentions c'est vrai que am na ay actes yoo xam ne euh, mengoon na ak li ñu doon xaar ci moom hmm. au niveau des intentions laa wax hmm. par exemple comme ni ñu ko waxee léegi impunité bi wax dëgg yàlla ku waxal yàlla xam ne fi mu nekk nii ah dina jafe nit ñëw dem leen taal bërëb sàngam dem leen taal bërëb sàngam loolu moom ku waxal yàlla xaw na fi wàññeeku ku waxal yàlla itam di nga xam ne kuy gérer alalu réew mi xëy na di nga am sikki sàkka bu fekkee da ngaa war a luubal mais am yenn secteurs yoo xam ne euh, ñu ngi koy ñaan wax dëgg yàlla mu taxaw ci muy secteur santé bi c'est vrai que y a la CMU mais très souvent sur le plan de l'effectivité pratique day am problème mm c'est vrai que am na prise en charge de la petite enfance par rapport à les soins médicaux mm-hmm. xaw na sooxe euh, au niveau de l'éducation am na benn secteur boo xam ne commence na stable mooy au niveau de l'université mais sa mën nañ yokk seen loxo mais des na surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi diggu déemu yooyu vraiment war nañ ci def ay jéego. donc mm. ci éducation bi ci santé bi war na defaat ay jéego yoo xam ne vraiment. Euh, ñu ngi ko ci xaar. mais encore une fois. Mm. Euh, bon xëy na aw ma ay chiffres euh, mënuma déclarer de manière comme di Birima bilan bi c'est extraordinaire. en tout cas li ma mën a wax mooy am na mm. lu ñu ko doon xaar mu ay signaux forts na ko. Mm. mooy impunité bi mooy corruption bi mu ngi koy xeex de manière objective. c' est vrai que maintenant sur le plan économique xëy na sénégalais bi moom du gaaw a sentir mbir mi ci biir poosam. Mm, mais dañ koy mettre sur le compte peut du temps qu'il faut accorder pour que yenn réglages yi war a mën a. lenn li également Birima l'a dit on en discuté tout à ma ne ko foo xam ne mënuñ ci sori hmm. parce que mën na am décision de justice la hmm. mais sur le principe du principe sur le plan du principe ñu ngi ñaan chef d'État bu fekkee vraiment dëppoo ak li ñëpp yaakaar mais wax dëgg yàlla ñu xoolaat kaaw gone yooyu parce que bañ jógee réew mee soxla woon ndaw yooyu sacrifier seen bakkan hmm. sacrifier seen am am sacrifier seen alal pour euh, vraiment benn situation boo xam ne réew mee ko laajoon mu jóge fi nañ leen jàppale xoolaat seen mbir xool nuñ leen koy yembal am na lu mu fi def maintenant comment se fait-il qu'en trois ans les gens soient incapables de montrer ce qu'il a fait ça c'est la question que je me pose parce que quand même booy du ma ñëwaat si lu nga wax yëpp parce que dëgg la ñu ngi koy dund xëy xëy na dañu yeb Macky Sall xëy na dañ ko yeb parce que il faut dire les choses hein on est ñoo xamante am nañ fi 50 ans suma maas bi am na fu ñu jaar am nañ luñ fi gis. Mm. en trois wax dëgg yàlla def na am na tam lu mu deful. Mm-hmm. comme man du ma toog si lu mu mm. def. Mm. lu mu deful mooy que euh, tey boo xoolee euh, la panier euh, le panier de la ménagère wax bi fa la ne wax bi fa la ne mooy que dafa am benn tension financière boo mm. xamante ne mu ngi si dëkk bi xaalis moo dul daw mais pourquoi xaalis dawul mooy pour la première fois sénégalais dafa janoo ak dëgg ça veut dire nous sommes devant notre propre réalité dañu am huit cent milliards yoo xamante ne douane daf koy uti ñëw teg ko si kaw bi mu am six cent cinq cent six cent milliards. six cent milliards. Euh, waaw non non waaw six cent milliards douane mu am cinq cent sept huit cent milliards impôt voilà non dama inversé affaire mm. boo dajee ñaar yooyu mill trois cent mille trois cent milliards. Mm. nga xam loo mu am loo xamante ne bitim réew nga la koy jox mu complété. loolu mooy suñu dëgg nga jël xaalis boo xamante ne mu ngi jóge mu ngi jóge bitim réew mm. mooy lan mooy les transferts transfert yooyu moo doon téye Sénégal mooy mm. téye Sénégal ba léegi mooy ñoo xamante ne ñu ngi sa kaw malgré la crise six cent milliards la ñuy dugal par an Sénégal mu am léegi nag beneen problème boo xamante ni mooy suñu vrai la fragilité de notre structure de notre structure de secteur privé mm. entreprise yi boo demee agricole bi voilà loo xamante ne ça n'a absolument rien à voir mm-hmm. problème structurel mm-hmm. dëkk boo xamante ne depuis cinquante quatre ans on mm-hmm. investit moins de dix pour de notre budget national dans l'agriculture boo xamante ne le seul service qui le service des télécommunications da nga a xoolaat affaire yi ça veut dire que tey ce liggéey na faut dire les choses il a travaillé ce qui risque de nous arriver c'est oui. l'économie extravertie mm. boo jëlee le plan Sénégal émergent waaw mooy que waaw euh, lu mu bëgg a boo xoolee tey suñu économie yëpp bitim réew mm. Mm. Ah, may gis nii la j'aurais aimé dugal si am si F euh, lu mu tudd APH j'aurais aimé bokk si nekk si actionnaire je pense que sénégalais yi mënoon nañ fi nekk actionnaire parce que là la la xam nga euh, xalaat dafa jot pour mm. sénégalais yi parce que am na ñoo xamante ni xarañ si mm. bu a baax merci merci beaucoup waaw waxoon rek télécommunication je pense il y a quoi apprendre avec euh, la 4G qui arrive non non je veux dire non non ce que je voulais waaw attends ils ont été plus loin man loolu mooy quoi booy que si on reste si on reste sur le en fait Charles waaye je <laughs> pour terminer en deux minutes non man damay wax rek parce que mm. xam nga aussi wax neex na waaye aussi la ñuy pour natt li mu liggéey aussi mm. dafa baax euh, tout à l'heure Papis dafa ne euh, régime bi dafa stable maanaam tatawuñ en trois ans on a trois premiers ministres loolu mooy lan non je le je termine ñetti premier ministre am nañ ko diggante ñetti at mm. ministères yi ku ci nekk lu mu néew néew am na ci ñaar wala ñetti ministre loolu mooy lan loolu mooy stabilité ñaari atu Macky Sall yi ñaari atu tâtonnement la da doon làmbaatu làmbaatu daj fii changé kii jël kii dugal fii génn fii c'est normal ndax koo xam ne ki mën na mañam ne parce que moom am na ministre yàgg na ci gouvernement bi def na ci huit ans mhm. ministère yu ci bëri occupé na ko ministère de l'hydraulique ministère de l'intérieur ministre nekk président assemblée nationale ministère des mhm. infrastructures nekk na ko sax mhm. à un moment donné énergie donc ñetti atu yàlla nga teg ci ñetti premier ministre dooni ma loolu da dangay da kii li ci des mooy Sénégal ci boo jëlee espace UEMOA UEMOA mooy deuxième économie après la Côte d'Ivoire taux de croissance Sénégal maanaam liy natt alal réew mi ak li ni ñuy liggéey li à partir du PIB hmm. loolu Sénégal mi ngi am 4 pour cent de taux de croissance hmm, hmm. dégg nga là où là le Burkina Faso a 6 ah, pour cent de taux de croissance là où par exemple la Sierra Leone de taux de croissance là où la Côte d'Ivoire a de taux de croissance ci yooyu la ñuy natt alalu réew dégg nga Sénégal diggante ñetti at yi mujj yi boole ci diggante 2012 fin 2012 ak léegi 500 entreprises teg nañu fi. waaw mais là où je suis pas quand même. non mais laissez-moi terminer laissez je donne des chiffres. je donne des chiffres man li may wax teguma ko ci yaa ma neex wala nangam. non non on parle pas ça dama ne Sénégal. Birima s'il vous plaît euh, s'il vous plaît de croissance bi mm-hmm. on est à 4,4 pour cent kenn mënu ko weddi. Mm-hmm. Mm-hmm. taux de croissance c'est 4,4 pour entreprise yi nga xam ne dañ ko nationalisé woon Abdoulaye Wade nationalisé ko te mu waroon ko redressé boo jëlee seen seen raay boo jëlee Sunuor boo jëlee yenn entreprise yi nationalisé yëpp daanu nañ fi mu nekk kenn redressé bu ko léegi du moom moo ko daaneel mm. mais dañ yaakaaroon ci moom xëy na bu ñëwee dina mën a joxe tuuti yaakaar pour ñu redresser entreprise yi mm. donc yooyu yëpp boole ci panier de la ménagerie bi wax nañ ko sànq ñi ñi fi mu nekk nii kii ku ne prix yokkul mais taux d'inflation bi cinq pour cent la. Hmm. maanaam li ñuy wàññi ci prix yi lu ñu yokk 5 virgule 4 cent yokku na ci njëg yi. Hmm. am na njëg gaa yu wàññeeku mais am na njëg yoo xam ne ki wàññeekul ndax nit ki aussi booy wax da ngay wax li nga xam ne mooy agrégat yi maanaam chiffre yi nga xam ne. ci lay ay hmm. banque mondiale ak ñi nga xam ne ñoo ñu jox xaalis ci la ñuy tënku. pour jox ñu xaalis ñu yor réew mi. yooyu boo ko xoolee yëpp day mel ni Sénégal avancé wul. waaw loolu nag. du ci ne Macky Sall mën na wala mënul. daf fekk ne ñetti at parce que Ablaye Wade dafa daaneel réew mi laata mu fi jógee nañu waxante dëgg. ndax jóge na fii bi mu fiy jógee dem nañ ci taux de croissance ba deux virgule cinq pour cent. moom xëy na yokk nañ ci un pour cent et demi. Hmm. dégg loolu tout pour dire. tout ça pour dire que. Hmm. ba tey ba tey ba tey des na maanaam li nga xam ne Sénégal parce que mënuloo nekk deuxième économie de l' espace UEMOA. Hmm. ba pare UEMOA ñoom ñëpp ñu raw la. donc il a du pain sur la planche en arrivant au pouvoir. ça veut dire que euh, non non on sëñ bi on va terminer xam nga vraiment nit ki buy wax dañ dañuy déglu. daanaka man man waxuma pour affaire yu yaa ma neexal yi ba may wax ay chiffres laay génne. Hmm. te chiffres yi may wax ci rajo seen télé laay déglu télé bi nga xam ne hmm. gën a déglu ci Sénégal. Hmm. économiste yaa ngi may déglu te li ñu wax xam ne ñi dégg ko ma sëkk la mënu aw ma dara lu ci deñ. dégg nga man nag waxuma affaire yu yaa ma neex ay affaire yooyu nekkuma ci. dégg nga dama ne boo xoolee chiffres yi nga xam ne moom mooy tax ñuy natt réew ndax mi ngi avancé wala avancé wul du dem li nga xam ne def na ko fii maanaam bourse sociale CMU ak yeneen ndaw yooyu moom la ñuy woowee ci économie traitement social du chômage de la pauvreté mm-hmm. maanaam dangay parce que ñaar pauvreté ñaari yoon la ñàkk ak ndool dafa am ñaari yoon ñaari yoon yu ñu koy xeexee mm-hmm. boo koy xeex da ngay créer dangay fexe ba entreprise yi am benn environnement c'est vrai wu ut ay emploi nit ñi liggéey am xaalis. loolu boobu wax na ko sànq amu fi. deuxièmement bi mooy. Mm-hmm. nga fekk famille euh, njaboot nga xam ne dañu xaw a sonn ndóol. Mm-hmm. nga jël ay azaka jox leen ko pour ñu noyyi tuuti. Mm-hmm. loolu boo leen ko joxee aussi dina tax ñu noyyi waaye loolu doxalul réew. CMI bi ñu ko créé ba léegi. bañu ma ko mais dafa am ñoo xam dañu jógee ci bitim réew jógee Guinée jógee Mali indi seen doom ñeen di faj ba nga xam ne tey jii euh, cas euh, de santé yëpp daan CMI bi 5 milliards la cinq milliards yi jeex na bu yàgg te mutuelle de santé yi bari yaa ngi tëj parce que lañ leen waroon delloo loolu delloowul ñu ko ba léegi mm. léegi mi ngi wutaat yeneen cinq milliards yu mu dolli parce que mm. man aussi ay chiffres lay wax du waxantu nii rek ci wax très bien alors gis-gis tout de suite non